ko sate kono jurum ko mol finditale ke ke loya useinu dabo ka bendung a uh, minkeda Eh, UDP ka fo mi yalan ko wala be jurum bun kono jang ay iko iko mi fotendre iko election o min kanarante kono ala so de de carte ke so di la mola ibadi la loya Usain Dawol la iko parce ni na la jube masa jama ya fola ko ibe ma ko la masal min sidanu ko be ma ko la kele silo de da ke ma ko ga kurandu ne jang bare hani kabi mamo de maroje iko woto tele ya loya Usain Dawol ta be kala modi mi yalano ko asa jurunkun silode dano asa development no na veno jurunkun kono asa courant na no jurunkun kono musol batara kata leptano do nyaming, usloya usen dabo sema ko wala be mbadi wala kala crowd to jale nyine crowd to nyune findi da loya usen dabo woto amme mi yemi fo natara wala be kering natara e bole fanan kala nyi election o min kana tendron a kuma be sen yala loya usen dabo fanan afanan kanana ne na fanan furada mitin blaten doron abinala abala speed di lale anin abe kuma kan min fola mol fana mo moy lale ngal yaaje mol ba jublet kana dolbe dongola e be contandi iko loya Usain Daba atala moti mi yala nako atala se keno president di Gambia kono atala se Gambia samano iko loya Usain Dabo ala wino ta bayla a ndama fode ngay ko ndama fode bar jurum ko mol walla yafo ado aliyeje le ɓe siriña ñaminten a se ñini karo kono ten ɗoma ndi a toɗima malik sise bina ititaɗa mune ñini ja inata ɓennugo ata ouseinu dabole oya usen dabo a i i yalañin fonko yaya ñaadi yalañin toya ñaadi le a soksitale because ngamira mola bijanga ka fae ko hungry power ha ngamira sani molbe yallo mune mune mune mune fenke eh, power la ha ni le ni le fele ka kan go wala be data kamani kan go fama man kan moy bak bak eh, lo ne ko di wasi sose ah, dan ko muna wa ati si olof ño xamantala ñu la dega pak sa xamna olof nga gëna dega waaw lima bëgg wax moy ñun day ñëw pour gunge Ousseynou Dabo mu ñëw pour wër réew mi ñu topp koom pour dimbale ko pour mu mën a wër réew mi yëpp gis réew mi ñi nga xam ne ñoo ko bugg a fal ndax moom moo nekk président bi nga xam ne mooy stand right now boo xam ne moo war a teg over soo ñun ñëpp dañ jóg topp ko pour ñu wan suñu boppa xam ne ñun ñii kat kii ñu toppa nii kii mooy mooy ki nga xam ne moo war a nekk fii ci président bi loolu moo ñu tax a jóg waaw ah, dañu gis ah, li ah, political leaders yu bëri neewoo damay def ni damay def ni waaye gars yi demee ba ñu toog ah duñ dee def li mu waxoon ko dee def de. waaw loolu am na because la ko dalee si Jawara ñëw ba si Jammeh ñëw ba si Ousseynou Daw ba si ki foren feren président bi ñoom ñëpp képp soo xam ne la nga defuloo ko waaye du kii na kii nekkul ne dafa hungry power xiifut ko ndax li may moom dafa ñëw pour ut tur kii mooy Nelson Mandela ca South Africa soo ñëwut fii pour ne dafa war a toog pour stay dafa ñëw pour liggéeyal ñu faw foundation boo xam ne ñun xale yi dinañ ci mën a jàpp dem ci kanam. da nga yaakaar ne ah lawyer Ousainou Darboe dina win élection bu nekk di ñëw. incha allah ni ma suma loxo yi leeree nii na la ma leeree na dina win te kenn mënu ko tere win ku mooy yàlla te yàlla winloo na ko incha allah. jërëjëf kon ba léegi dina dem si kanam xam naa ñii ñoo nekk ay ndaala ñoo nekk UDP tur bi. Masu Masura xam mooy. itoo di. Ndoomu Wandifa Sonko la di. Wandifa Sonko a ite bi mu ne si jambi. yinnata mbe banko men kan ndi wolle mo ñoomin kolu wolle kumandiro ken na président kuto min mo loya usenu daboti pour ati futere sato do nasikata akkaca kambiya lañala anin kambiya ñanditala min dol wone siñin bankon kambi ñin carte fayo min kananan ten ite ɓe la carte keso ɓa dila juma a nte la carte keso mba dila loya usen dabolla namuso ɓa dilala ndigu ɓa dilala mbar ndigu ɓa dilala mba ɓa dilala mama ɓa dilala loya usen dabola kato atene jarta kañum bankum mara ite ya fale koyte ɓa dilala ela muso ɓa dilala bari ndigu ɓa dilala munatine e mowol bula wolite damin diyate ya fayji ani membe je do wala munyi ko ata keno din ke ba din no ngende bula ke ba le noma ka de ke ba si to kam menje din no lo to bukaji wala nan ko e bula noma ngai nyati ni de mende nyai ti din jela pru la fita ban ko e tra nyame a ke wala ka du sedda ala fita li ka si me so la gambia ya ron ne ba iya munne fo jang iya munne ke jang ani iya munne tu jang useni ye men fo jang ngaw jele ay men ke jang ngaw jele sai men men wala ma ay munne tu jang a no mulu muli kasi sabot k'a ne 1981 ay men ke janga wojel biri ya aja me ku de daga Hussein ko alinna anan banko nyanda marla wala ani ani anin kan yala wala mai men foja ala fita men tule da wala mu nyinti ko sai nyaga da president di ay sina ken no fara fara kam ya di wali din ni wonni fonni jonga no ma wala mu senoti ken kende ya Eh, na balu anina banko nyanda lola sim simvanyani menna lika fenge sabo me ya lulo me ya bondi eh, eh eh five five point agenda me ya bondi osita ma nyama banko di woni sida banku diyaso go

jàng na ci réew mi di dox ci réew mi di xool na la réew mi di doxee républicain fii leen ko fekk ñu dem mu commencé politique 25 years ago am problème yi réew mi kon waa Lowa ñoomi waa Opa ñoomi wala waa Gambia in particular lii suñ opportunité la buñ ko saagaan te buñ ko saani te ngeen seet mi nekk ci gannaaw Ousseynou mooy doomi Gambie ñoo xam ne bu leen neexee tey ñu toog seen kër jaaxaan waaye ñu ne déedéet ñun utuñ alal dañ bëgg a dimbali kilifa ji yóbbu réew mi dañ ko topp ñu jox suñ xam-xam jox suñ doole pour suñ seet ak suñ doom yi waaye mbootaay yoo xam ne fas yu dee fas yoo xam ne dee nañ ba nga toppa fas boobu noonu doo ci am dara lu du jaaxa sa doomi ëllëg ak sa set kon xam naa ne waa North Bank gis neen loolu dina ko dee wax mu ne fas boo xam ne rëcc na boromam mu ngi daw àll bi yow nga tase fas bi nga break ko bugga si éeg da nga war ne kii dafa daaneel boromam ba pare boo ci eegee daaneel bu mu mooy metti lim daaneeloon boromam kon ngeen bàyyi ci loolu eh, ñu ngi déglu be léegi di master cérémonie pour mu ñëw joxe ndigal wane maa ngi di wane comme ni ma leen ko rek. kilifa bari yu fi yoo ne mënu ma leen a lim benn benn waaye jot naa si xamee ñenay ku mel ni ajaratu Bini Marong am national executive member la bokk si national campaign committee bi ñoom doxoon réew mi ñëwoon nañ fi mu ngi si délégation bi nekk women council o KMC ak ñoom ajaratu Yakumba Jeeteñ ñoom Olidiba Wadeen ñu bëri thank you ñu may admin secretary ah ñu oo imaam imaam na ñëw imaam bisimilah ibele be ñogora sate almamo naɓe jan jurun ku alkal almami keɓe kontomba almamo sina ay tammi ñanto duwala ninga sawato ke bisimila salatu ala nabi bisimila bismillah rahman rahim salli ala muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallim اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وسلم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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تدلنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا كفرته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا كديته ولا حاجة من حواجدنا إلا كديتها يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الايمان وثبتها على قولك الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره واجعلنا هدر المهتدين وتوفانا مسلمين وتوفانا مسلمين وتوفانا مسلمين ولكن بعبادك الصالحين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلب والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والعاد الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة على النبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد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 jurunku yenyin daniro yin kele ba kanula nga tambi nga jurunku bula fodin pati lida bina ilafta kula kela gambia be ba jelale abe kela tari kolati nduño kuntato nga bula nata nyi lungo kerker pati lida ye alhamdulillah aliyemin nata nga bal tenkula bal jayila jurunku ya tari kolati alni mbara la baraka ar na diyam la folo wole mun na constituency kiyamanti aliu gey a ñanta diyam la algradaran kaye hanite diyam la woto ñin luŋo même di men ralliti aɓe kela jurunkule aliu jeye do ko men ko oppa ñoomi men ralli a ñanta diyam la wolto woto aliu jey oppa ñoomi kiyama nayna ñimmoye karta Lenny chairman de Babuga menu menu cross up the first hour and now let's Fatou Diadio suma diggante ak Jurunku ani Jurunku Tema waxtu bii last year last year ñu ñoon tumo le ñëw suma kër itata suwo kono Jurunku Jurunku de ñooma njëkk a jàppa yaay téléphone a muta baat bu ma bokkee UDP bila bo atata abe abe ajunta seen gannaaw su tàngutoon su seen gannaaw tàngutoon soo leen ma jigutoon naatal man bennu du ma si toppa be am fukki doom ak juróom. ah affaire yi tan ni sa. ci biir Gambia fii. Gambia kɔnɔ. yéen a yéen a ma ubbi bunta bi. woto atalew bunta. te dinañ leen fay dinañ leen delloo njukkal. a nɔ a bɛ jɔyɔrɔ kɛlɛ. li ñu war a def fii jurunku. même bɛ kɛlɛ jurunku jàng. waruta a dige. a tɛ right la yéen waa Gambia fii waa Gambien fii. ala right leen Gambien fi def. i bɛ mɛn kɛlɛ jàng. ko war am. Ah, waru leen ñoo gërëm pour loolu ah, parce que loolu moo fi war a am nit ku nekka moomoo war naa am courant nit ku nekka moomoo war naa am ndox ndaw yu nekka war na ñoo am jànga jigéen yi ak ni ñoo soonee ci mbéy bi war nañ leen a jàppale UDP nag indil nañ leen xéewal boo xam ne UDP e xéewaloo naa ci meeyaa lonko mooy five point agenda bi wala five point agenda jigéen laa hido five point agenda UDP bi UDP la agenda ñi dafa njëkkee ci wàllum ndaw yi a folota fonninkee la mu toppasi ci wàllum jàng bi pour ndaw yi a naata fonninkee la karan kuñaa toppatoo baak mu topasi ci wàllum mbéy bi pour jigéen yi ak góor yi seno toppatoo pour mu sola nin keel mu toppa mu teg si wàllum wergu yaram pour suñu yaay yi suñu rakka yi ak suñu xale yi jigéen yi ak mag yi mu sooluwa nim ñu teg si ci wàllum mbéy bi seno naata laawo kan UDP ne UDP ko balaa ñoo mun a def dara jandimbe kooku kenn wergu yaram fan bu gudda ak dignity pour every Gambian mooy priority

2021 Gambia ak li ñu yàlla meñ. suuf waruñoo toog di import li ñoom. di import di import maalo. am nañ fi suñ yaay yi am nañ fi suñ jigéen yi am nañ fi suñ góor yi am nañ fi Gambian. ñu mun a am tool yoo xam ne. suñ dund mun nañ koo am. 2021. 2021 waruñoo jël suñ jigéen yi di lañ teg ci kaw saret. ñu dem wasi 2021. internet waruta nekka mel ni danga sampa kër internet ma ñen koleela fola ba kana ko da lool 2022 Jote. 2022 Dingen hamne UDP egsi ah azalo na ko UDP fu gatale su 2022 jotee di ngeen xam UDP nyonen. nañ pour defaraat dëkk na UDP na pour jox leen seen fundamental rights. fundamental rights as human beings ka hadamadiyato parce que ku nekk dafa war a nekk ci sutura moo moo ñantara dundal njabootam ci sutura yela dimba ba dëkk ci sutura ak yaakaar ci seen njaboot ani jikko yela su ma wax nag du bari tey parce que dafa guddee soo kuuta waaye ñun bu ñu ñëwee pour ngente si di ngeen xam ne waxtu jot na maa ngi leen a gërëm di leen sant kontaan naa trop pour nekk fii tey si guddi ak yéen ala Masela muri tabe diamu. Akali mata koroko kanawi. Samai e pandang mangkeramu. Akali mata koroko. Akali mata koroko. Abela, abela, abela, abela ko. Abela. Yo. Yo, yo, ha. ¡Adiós, Rama. Tabo Shankar. Kojima Ninyakima. Ala la domang. Ala fuwa mo domang domang. Tabo Shankar. a fere lori yin zalla ko kin yara shanka abarka abarka yo wallahi ya ba

Thank you. excellence Alaaji Ousseynou Boulaye Sidiane Alila Moy demo ɓe ɓenɗa koni ken alilam nde sadio alfaloni almamo kontonna sadiol alfal be kabilol men bijanto ila ñaton koɗu mbeɓe kontonna his excellency mu ngeen nuyu alkali ak imam kilifa yëpp bi teew tey mu the CFO Mamadou Thiat Thiam mbaa fanam kontoon na Alaji Sène mu ngi nuyu district chief Mamadou Thiat Thiam mu ngi ko nuyu ko Alaji yaa fo o'clock mbaala banko kan comme ni ko Alaji waaye depuis eleven o'clock ñu si suufam bare ngaaja ko jannomo kontoon buro ñaan dof talama kaatu jikta ko naaɓe saate o kono a famɓe kumol moyla yaatunoɗa yaakaar naa ne depuis ma commencé suufaam tey lañ fii lañ ko nuyoo nuyoo bi fii la gën a xam ne ma ko nuyoo fi nekk si biir dëkk ciif dina dégg ne nuyu naa ko benn constituency chairman Aliou Gueye baax na kontaan naa Aliou Gueye ñu ngi nuyu mais deputy regional chairperson Mr. Sall Mambay Sall mbaa fana kontoon na député régional ci Mambay Sall Alhaji Ousseynou nuyu na na politiko ñaaton koolu muskunda ke kunda mbe be kontoon na jigi politique na banque Alhaji mu ngi nuyu na ñoolu ka commencé Sambu Kantala elders committee moolu ani ala kafo moolu be mbe kontoon na

Alaaji Seyni mu ngi nii forme diplomatie yoo xam ne di jokkale ko diggante Gambia ak na teerol fanal jama bi janto mel fanal yaalon ko yela haajol debula kana kan kiide fatañi siloto mbe fanal konton na am na bi xarit yoo xam ne baa ngi seen ite yëpp ñu na musoolu ka commencé Fatou Diané Adama Cissé Ramou Sabali Kacan Jawara Nato Malben bébé kontonna ñi mu lim yëpp lu ko commencé Sabali Kacan Jawara ñoom ñëpp ak ñum aja sukaina ka men yalon ko musol la ñaaton ko ako ŋaafale ko abal kontonna waajurum aja sukaynaka nga xam ne moom moo jiite jigéen ñi dox na ko yóbbante ne na leen gën a nuyu buba. Ako a bu baax ako hakkiloo ɓe ñin 2001 anata jurunku janne ani asan musa kamara o kampanyo be kere keeri anata jantole abuja ba soto janto o kammala ala keɓaya wole arnan mannano bara hakkilo baali kan ala duwa fanan baale a konsali kontoye Adja Sukay Nakamuna ñëwoon na fii ak Assane Moussa booba na musu faate waaye yaram bi ak léegi mun ta teew fi waaye xel bi mu ngi kotenke ka Aliou Gueye caamano ñi ka tentu ka jaay Aliou Gueye alaani seen mu ak nuyu tooña tooña nga mendi oppa ñoomi mu ne wa tega fa ne yàlla na mampatire men kono fa woto e mare mam politiko e ma understand albulo chairman ne executive formune lolu sibeke ne dapanji ba ne lolu doyla kono na ngasa son ke alula albreda ama fonye bari ngalo ngam menje silokan kabinu mota albreda fajanto ngalo na kavo ko ngasa simen na to yo doku le ka bandi nkamvemba tu wanaondi 4th of December ti kotambane patu ah ulo mtonati aliuje yase komiti yalani uselu mune tepapeka luna sason disna ko jibe mundoye ko aldona be fi xam na ne on the 4th of December loolu dina turn into massive voting ka fo dam mam manke woko sedoti mune sede bo wudu mbolo mi rek par mol natale lota janto me yalon kavoko

patiome yaron kafo ko ay mo bele kundi patiome yaron kafo ko aman suru walong, aman mandinka kalong, aman jola long, aman sarahule long, ay mel lon wolon gambia ding gambia ding mel lon gambia ding yato tala ah wolon tonyati mune mu ngi di dalal ci United Democratic Party pati boo xam ne amul xeet amul pël amul soose amul joola parti boo xam ne lu mooy Gambian doomi Gambian yoo xam ne jëm kanam lañ bugg a àddina aɗon ngaalon nenil memnagal ka join pati o la won fanal mo ñoom moon ladi imalla fenfen fo Gambia diya xam na ni ñoo xam ne ñoo ñëw booloo ànd ak pati bi tey gomun teralu du ne ñoom ay doomi Gambia leen te loolu lañ ko lafta alni kaf ñooma dama bugg a ñi ñëw léegi ngeen ak Aliou pati yo na ko ka samba ay kotota baga ka tambe abi dame na say ngir ngeen anda mom ligey parti di mu gën jëm ci kana atel mel da ka join pati yo ya ni ñi ñëw join parti bi mesa so la fanal yu seenu di la len sas di ngat be koros le gis na ne atel fem fem ku ka ci yéen naaliya su ngeen jëlee wakilu bi albe moo moo be moo tànnaat ko ku ci nekk ci mu naan fukki ci moo sa sonda kam moo tanta moo naati ka foo ñun kon alaaji Ousseynou mu ne balaa jël si sas boobu noonu indi fukki nit yéen ku daamen nu ale kaf ñoo soto je ale teer soto je ale kaja ñoo soto je to adamaya baabal ni mel teema ali kaccandi ali mudariya ali ay tandi la ko ñun patio wala be Gambia kanandi wala mu tooñaate yi fi ngeen nekkoon am ngeen ay mbokk ak xarit fi ngeen di àndal wan leen ne parti bi moo mun a yóbbu Gambie ci kanam ak lu mu tamel na gars yi ñëw ñu àndal yéen ngeen join mbootaay boobu kada aliyamu dar yakatu mallafi nga kokule ke me mhm. yalon ka fokko ani hormanta ya tabbe no kam mallafi wala ala yu semi kene bala mu ne sine na waxa nit ñi soo gisee mu naan ngeen masra ko bu rafet moom bugut ba boo ne What's your biir nit na gis na dem ba loo xam ne lu football ko. xale football sport football jerseys football loolu the goal post nets ñolu nga ñen laahi dool taalee ah ndaw yi alaaji Ousseynou mu ne balaa tool bi di dee di ngeen am goal post di ngeen am jaasi di ngeen am football mooy youth si prince même fana yàlla ji ko kumbo janto prince foo xam ne war na ñàkk ndox nin sayta ni mën a too banta lu mel na o sooma fulanjang su tool bi jeexee si élection ñen ka two hundred thousand dollars so men faliu ge two hundred thousand dollars ko pour boo xooloo ñi i baa sotla le ntema soto bare moolu ɓe mbulmel ya soto kolomu ah, soñate alige alali useni mune bu ñibee ca élection ñaareel fan bi li ngay lim ci booxool moom amu ko waaye am na ñum àndata ñoo xam ne am nañ ko aɗum mantara dila prisin kolla kol laftale ye karto fayne te ɗum ko ɗo prisine ɗen mbugara ñu sani ñu katta de ngakka boholo samba dulata mele alon ka fa koy tamale ko e manke UDP ti ñun yobu ngeen bohol ay bërepp yo xamne wóor na ñu ne ñoo ñu UDP bar nga non ka ko gambia din lomu isulata jiola inyata jio soto way wóor na ñu ne ay joomi gambia len solo len do te ko la am woto inshallah ngamira na to ñimbe banna on the 26th eh? on the 26th yata na to ñimbe on the 26th on the 28th of uh, October. On the 28th of October, aluge ko menyanta boholo sinna na banjulu ibat sutla. Aluge ga anda kuika bohol nyanyo banjul itoko bohol. Aliado mbetaman tamon latin. Kamya na mane dohan tikiro wi. Adum politician o na wulta betaman tamon la. The politician buido di wolre. Akake dalila kilin nakam. Benna dalila tamu ko. Mem kumma ta dalilol be kono. dencee am solo ci dalil mo dalino wonon ka fo ko kata ni ngi la moy fa buga pour sa ni ko kata ka moy de dañu ut kan a ñu ngi uti kata adu mbe jamono men to ten jamono bu ñeka ni pati yo bele bay taman taman ka be kato ni ka pati yeb do ne ni uti kata adu wakati ni yaje mbani ka so gise ñu uti kata bobu lafta lafta mara lol la den buga pour ñu ilif adu ninka lafta mara la sune amanga kavo kon lavta kake ke mansa le timo kan ne ko le ko puri akara alianda alana banko na fulota alianda kanta aliya kara famma ngata mandi ali allafta ah, ke nyamin ah ko le to ngati ala yu senu mun ñew fu nek sen bur way ngeen doko seni alawi rew ak seni bat mu doxalal len ko mu jëri len ci li ngeen ko bëggee mallafi nga mallafi ala kato dinna ka nga kale ko niaje mari duntota state house ntale yakeni dinta state house ka niaje ntabe state house iteme kato dinna wala kene ntata state house moom gomna ne su fekkee ne jot ngeen ko soo gisee mu dem state house yéen a ko jox kàtta pour mu jaar yoonam bi dem state house. waaye ni yaa fana nga kàttoo ñu ne kan albulu. soo gisee muy katase loxo nga fenn pare ni Gambia ye dafa am loo xam ne liggéey na ko ci xamam paral ko Gambia mais yaa loon kaabu kontaa ke la damanta mankato so nga ke président te loolu ak nim loon ko ene ene bu mun a def su ne amul kattan pour nekk président waloon na five point agenda ti mool yaa karan ne ñi jàng nañ yaa juubee le borom xamam yi gëstu yaa juubee ko tenke Guess who I got? Hello, hello, hello. Listen to Bensika, Bensika. When you five point agenda do vanang. Agenda mo mo na. Natale. Eh? Den ko jël. Na fasari eh, eh, arab kanto. Wala pato ko ci arab. Arab karanalo. Ñu janga arab. Arab karanalo. Ñu janga arab. Ya jube ya ya ya jube ya jelma jelma hak lo ko moti jeto me ya dam kaw ay hello sutato. Ñom tam set na ko set wacce gisuñ ci Bensika wala ben hela. bara annalo beteya be way atlim ba ba he fa kon agenda bi ak betar la laari njeetole mu ngi tegu foofu daanaka be mumina yalto fi nekk ni dafa mel ni mumu la rek karto UDP wala ba kumanda wala ba klabe diamu nola ah su ngeen ko sànni ne kanta loolu moo tax five point agenda bi wala ba kala five point agenda ni mba mba mba loolu moo tax mu leen mun a njëriñ ko men be wo sita lépp loo xam ne jàmbat fi ko fii muso nagarin kuwo waalum jigéen sila kuwo yoon il bebe na five point agenda loolu lépp ci five point agenda bi barna kata tamanoo la du mun a dox fale katoo dinna xanaa kay ngeen dox kata mbakan nan ne ndimma ye audio america am na benn doomam bu ko yónnee video jóge america bundung hospital bundung hospital abe alhaalo men ɗo si alhaala gum ne kadi soobi jeeto noosoobi jeeto aɓe wosiila amna noos bu bane kadi jooy ko laaran kilin kan ne benne lal dimba naani dimba saba dimba naani laaran kilin kan ñenen ci jigéenu am toom benn lal bulu ko le laaran fay bee fatale ñoom yëpp lal lal yëpp den fees ko wob noo nii ɓe fal ko covid ɓe keeri e social distancing ke yedindin nani ani bamañoli nani kollandi daran kilin kan wobe mune wobune sabatilla oɓe jata kende a baliya oɓo dammane sabatilla mune benalal ñenenti njoɓot ak seeni halal benalal loolu lan lay mun a wane ci jamono covid ak lu mel noonu loolu du mun indi kaaraange pour wér-gu-yaram loolu ñàkkal wéral yi rek lay indil askan bi na five point agenda ñi nag jata kendeya tubabol ka me ko prime position akumayata bakele gambia la tamande ñakono te mu ne si pipeon agenda bi lu tubaab yi di wax prime position mooy health bi mooy wér gu bi foofu leen ko taawale si seen agenda bi intermental lip lip service kala to health delivery to health service delivery te lip service kala moom du du du joxe gannaaw eh, affaire yi wér-gu-yaram mi wome yaalon ka fo ko wala practical te nafa soto tel boole kele loo ne lu practical la ci la ñoom loolu la ñoo def ni meye miira jurunku ni esew te moɓe ñaamen dama ne ko xalaat diggante jurum ak esew ani silol la alhaaloɓe ñaamen ak yoon boo xam ne moom lañ i man na mejo health facility soto ni area amuloo benn mejo health facility si katmen area bi na garawta su garawe fo yebon kata esew foog nga gaaw ya dem SAO jani ta fula SAO ya be ñin sila kurun be kono ci yoon bu bon bi da ya lom mem be kala yalla la nga xam ni xew health center local kon ni ngeen wan yena health center ba amam bang wa jaangu ngalon ne ko hannane ñew ko akumbota man sa kunda modele lolu wa ngeen fay nguur bari hande bi ko manki je way be bakalarin ko ne promise menna bakalaar bi sita sila folon be men dala bu toogee yoon bu sila ba kan kata bakalaar saata boobu de bone kala yoon bu mag bi jógee boo dem bakalaar jam fana ñi health center men bi jantal ya commencé health center di UDP la sànni

a ah, ne ko ne lopitano ñin dañ ko complété de waaye nag même que lopitano ke lopitano ti waaye dañ ko def lopitaan mu nekk lopitaan loo xam ne dafay def lopitaan mu nekk lopitaan loo xam dafay def lopitaan mu nekk lopitaan wo bébé sot la jee doon loolu yëpp mooy fa am donc ku laal nit boroolu diggante yi ak garab mbo mbañira wol be sot la jee loolu yëpp la ñoo meeg soo mu nekk foofu alama nga ñim ku moo men foten yan na ko yàlla ah, sa ni hejo teni ya mo ni ya mo e sinko dege e ko badu ngata nyo saban rola <laughs> dukare dukare ala alake wa nengo nengo dukare dukare alake ba nan ma ke janning janning december the 4 ko se sinko dege le bola december di 4th ka foko in january january 2022 udp udp bakela udp wo wo sinka te amu eh, eh jurun ko ko dum baltel la waajurum ko laaj Ousseynou mu ne mu ngi di sant. Euh, day ñi kaa fo ñaami very long day. ah mu bi gudda na lool. Euh, ngal tentu. gërëm na leen. kaal kaal jay baakel. na leen. Oli Diba. Oli Diba waada. ani euh, Amar Skater Diané toola. yow ak Amar Skater Diané ale buña ba menke. E, jërëma e, e, on ma moom teraanga bi ñu leen jox gaay. ah aye mu ne ñooñu doy na leen teraanga bi ay parti yoo fana kono fa baakel te moom parti bi naa ne parti bi tam doy na leen ci yaajo bu ñaabe kele soo gisee ila ñi parti be ñi ñu ñi bi la wala ne bu ñaabe kele loolu moo tax ngeen teraangal baraka baak ala baraka baraka jërëjëf your moylani kam moylal momo ɓe dada rek en mba flale ko ah, gamben talen tv alwoljuɓe kam mba hakkille bulandilal ten doron ani kabi comme ah, ah, na fala ñamen kabirin kunun ko molɓe findiɗan kata tomina ten wolen kita udp la banku murumuroti a kununen la jurunkune bin fele natan futata jan daminte ka fadami e ko nungu keɓe nungu keɓe kete place ode mi yalano ko joka ɗule kono nana janne pour UDP kana ila miti mon soto janne ata Usain loya daba aya fal ala diamo kono jana kabum be jurunku akona ala sonta a jurunku kol abe ma ko lo kuran la abe ma ko la jiola abe ma ko la development la ani silo mi yala no ko sila tije parce jurunku kada sate min dimi yala no ko sate meri mbal oto mbari ngol ani kabi mbajanne joka du kono da min to mi yala kana mitino solo annal ba yes. Iya. ana a a be jamen nungu kebe nkana mi tulo soro dame ana badi male fat bali. ani na kamel pasine ga fo ay ibrahima sane tolo biya mboka yi kepp ko xamantene ya ngi setan gambien talen tv nun ko lay defé sa su nek rek te nak ñu ni fi nungu kebe nungu kebe place la bo xamantene ya, joka du la nega not bank region dema a den de mon a jurum kur wa té nak ñu ngi nungu kebe ñu nungu kebe ni right na ñu ngi ñew start a li fi meeting bi lawyer Dabo turam bi ku mu nekk di def radiam bi nationwide tour bi kon ba léegi nag lu rek ngeen déglu lawyer Dabo la la amal waa euh, Nungu Kebe maa dégg comme naa ñaami rek assez la moynu lawyer Dabo kana speed ay mun a soto Nungu Kebe nkool ye because Nungu Kebe nkool ina dara findi dara ye lawyer Dabo bendu woto kana le mbaa jubeela crowd to min mena findi la faa ba siyaala ñintile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 فإن مع الحسر يسرا إن مع الحسر يسرا فإذا غفرها تبدو إلى ربك فرقب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بصبر فألق من سر ما قلق ومن سر قاتل إذا وقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بصبر بالناس ملك الناس إله الناس من سر واتق الناس لسي واسي دور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صل على سلوة لما أهلق والقاتم لما توقع الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قتل مقدار عظيم اللهم صل على سيدنا لما أغلق والقاتل ما سبق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدر مقدار عظيم اللهم صل على سيدنا لما أغلق والقاتل ما سبق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدر مقدار عظيم إن الله وملائكته الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام لا إله إلا الله yal na yàlla nangu yaa rabbi yal na yàlla ok boroo ne imam jërëjëf mbay ah, mbay dëkkabu anin alfaalmil bee ɓe ñin saafe kono akkene fay wop ñineka sofo fo administrative secretary fo ñaamen comme ne ko admin na alpha ba the ah, deputy party leader and the deputy general deputy party leader deputy secretary general ajiratu yam sek anata be ka foko na jam be salon o nyama nyafane ko nona atata do ko dole la ko ma patiola do ko anna ayana dige yo xamne ci lolam ne kon ala ma do ko soni andi la bulu yana yalla mu muso bi jang me rest of banjul mayor banjul rogi malik lo sedi kan atara to do mba konton na ko ni wo Mena so. Uh, eh, di amlal salon kafo butun tilobe kandrin domanding. Pakati na jamina tutanga na tuti. Banyim bebe banku do kolo kono. Yettini je abrolo. Nse sabari nyoye. Dumoy. Uh, eh, mil fana bijang isalon kafo ko inata nyim bengol. Nyoye ne kata khamne ni mota hanyi nyo futay. Jalol mil bebe jang aning mil kamol sewondi. Taka kati nyimla nyo. Mbe mobile hakodi lela. Samuta nyo fewanya. Yettini lembo san ahanyo. mbe min fo wokela wolem to uh, drame asina se opening remarks di consequence chairman tijan drame a delegation obe bismillah sarim andu mimira hajodi fana asafa party leader eh. welcome Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mangi chairman nuyu imam ak alkali dekk bi. ada imam moo ni alkaalo konton. ñu ngi nuyu suñ gan ñu tedd yu tew yi nga xamne tay ñoo ñu set ci Ndungu Kebe. ani alfaaji mal ñu ñaaloon ko ci loka. Jité délégation bi nak di Aladji Ousseynou Nunu nda Daabo. मैं तो ये सुनाना तो गाओ और दिनेश प्रसन्न त्रिपुरा का पिकांडिया अलादु सुनो नम गाओ waaye duma fàtte aji mariama sekatam akaata ñu la yam babacar sekala dinaa nuyu tamit honorable lamine mas moom mi nga xam ne jàppale nañu bu baax a baax dinaa nuyu regional regional campaign manager honorable lamine mas aba kontaan dinaa nuyu boosam tamit alaji seni sabale. abe regional chairman honorable seeni sabale. duma fàtte mukk suma jigéen nag nga xam ne liggéeyam ci politique UDP fii. liggéey na ci Ndungu Kebe lu rëy a rëy. ay kuba do ko non to be jang tey jii nag su ba itam ñëw teewee suñu si mitin bi naa la kool boobu laa si jàng dina ko wane fii si nit ñi ñëpp gis ko abaay fa ñu la moo yaaje duggan ci Ndungu Kebe aman ah, ka min tanti jàng te tey tamit nekkul njëlbeeni yoon pour mu ñëw Ndungu Kebe indu man kala si nga projet non to be boole Ndungu Kebe ci boppam ay nu kebe kafu ñooma boole ak wàndu kebe ci familem tamit ay nu kebe kafu ala timbaama rohi malik lo mais bu banjul maa ngi ñu ngi laa nuyu ñu ngi laa dalal fii sa sunu kebe ah lu ñoo wax nag du bari moo ko moo tax yàlla baax ndax message bi ñu waroon a joxe foog naa ne joxe nañ ko berending kibaaroo ni yaa gi berandi foka pare waaye tey li ma am pour wax rek ndawi Ndungu Kebe aɓe mai tandila Ndungu Kebe fonnin kelu ak waa Kebe ak kilifa yi Ndungu Kebe numela be tey suñu wax si politique nakata politique kono bi foog naa ne ay weer si gannaaw Gambia kaldantan komanto am na disaster bu mag boo xam ne amoon na fii Gambia disaster doo ko dajam foño ki ñoo président Adama mu ne dafa ñëwoon seet si waa dëkk bi. ku nekk xamoon na nu kebe yàqu-yàqu bu fi nekkoon. gannaaw bu fi jógee amul lu fi bàyyi amul dara loo xam ne lu mu dimbalee waa Ndungu kebe la. tey waa Ndungu kebe ma bëgg ngeen bàyyi seen xel. dëkk bi bëri na ni trop. xel poos lañ am. jam may ay dëkk yu ndaw ambulance te foofu sax lopitaan nekkut foofu anu ambulance wala lopitaan ci jee waaye suñ nijaay Modou Diallo dinañ la gërëm torop Modou Diallo mbaru maam boo tontu Modou dinañ ko gërëm lool mbiraa tontu jigéen bu war a am doom fii soomu suñaka dima sooga jàng lum guddi guddi guddi soo kuuta ñaawo na taal motoom sala motoom mala yóbbu ko esew ay samba esew kon tey buñ taxawee fii nañ la sant ci loolu gërëm la. te gis nañ fi nga taxawal parti bi tam. gis nañ tamit li ngay liggéey ci parti bi. kon su fekkee ne parti bi am na programme fii waxuñ ko. loolu loolu du nekk du nekk lu baax si ñun. wo atakala ku kan ngati tole. Babou Kébé ñu ngi laa nuyu bu baax a baax. Babou Kébé ebe eh tantala ba to. Gis nañ eh, xelal ak xelaat bi nga xam ne yaa ñu ko jox. ane ka miral ñi maame ci ñu ngi ko nuyu bu baax a baax. Mbaye Ndiaye mbe tantala ba mu ngi ci parti bi. Président 96 kon kon ñi wandi ñu gërëm leen. lépp loo xam ne ñu ngi si. ñu ngi si ak ñun. ah ñu ngi bi waaye na ngeen bàyyi seen xel bu baax a baax xam ngeen ne lépp loo xam ne luy développement ni dëkk bi la ci loolu ci loolu lañ nekk alaaji Ousseynou nag su fekkee ne moom mu ngi raam di ñu xëcca ah, kooku su fekkee ne amee na nguur tey na bàyyi xel dëkk bi bu baax a baax ah, ah, jigéen ñi sonn nañ ndaw ñi sonn nañ eh, kilifa yi sonn nañ eh, tey da ngaa gis tey nga tëdd ba guddi ñu tëdd ñu ubbi sa néeg ñëw agressé la jël sa alal rey la wala ñu gaañ la te doo si mun dara waa nu kebe dama bugg ngeen ubbi seen bët da ngeen soxla ñuy jël ay moto di leen si dugal di leen yóbbu di leen jox ay nit ngir yàlla na ngeen fexe ngeen xam li ngeen doon bañ gi nga xam ne waa nu kebe bañkat gu ñu leen xamee Ah, yàlla mel na. ngir yàlla nañ ko bàyyi. tey ñu ngi jël engrais bi diko ko yóbbu Sénégal di ko ah, jaay. waa moom Kébé fii boodaa la ak Sénégal. Ah, loolu yéen loolu yéen gis ngeen ko. su fekkee 100% ñoo war a am engrais fii Ndungu Kébé. Eh, su Suma suma ma ebul ne 25% bi sax amuñ engrais. yéen a ngay gis ay regional chairman du NPP. ñu ngi jël engrais bi di leen di ko jaay nu mu leen neexee. Eh, léegi dañ sees. lu mu bëgg mooy United Democratic Party mu ngi nii. parti bi nga xam ne. mu ngi bàyyi xel mag ñi. mu ngi bàyyi xel ndaw ñi. mu ngi bàyyi xel kilifa yi. su ko defee ne leen ñu ànd. ñu liggéey ak United Democratic Party. on the 4 of December. bu soobee yàlla bu ñu sànnee karta on the fifth fii la ñëw sarse gele-gele state house bu soobee te loolu bu neexee yàlla dina am alaay jeune ñu ngi laa ñaanal loolu maa ngi maa ngi dalal ñëpp di gërëm ñëpp di sant képp koo xam ne teew nga nu képp salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah euh, consequence chairman jërëjëf euh, tijaan na diyaa moo bi daale baake I do ko min for ke registration o wato mo bata kalam ba tentulam ba jayila going to bese suman kata be nyame mbedi amla ko tamen kumandila walan pamaneti piyaro lowa ñoomi a fana sinani mol sa kaca aɓe dawda sinana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sama wala usonu dabo ngalle di wala lamin mas mas mangkatan wala lamin mas be jang ko na momo ko no no sona do be no ma kula kande wallahi mas mangkatan yalla ku ne da su wuli tan kan di boko be ko nya do ma da to nya me assalamu alaikum rahmatullah eh, wa alaikum salam wa rahmatullah mbokk yi maa ngi di nuyu ku ne turam ak nuyu eh, parti leader and secretary general alhaji ousseynou nini kunda dabo aɓe parti leader ak ñu mu àndal ñëpp ani men ɓeɓe silo kan di beral nuyo suma jabar bu toog bi a ɓara muso kontonna muy ajara lohi rohi eh, malik muy ajara ko rugi malik lo mun nañ wax seydi kan mun wax maane itam eh, man lu ma bëggoon wax rek mooy aɓe men fula suñ xoolee fii ñu fi gën a bari mooy jigéen yi ak eh, xale yi kon lépp lu fi nekk rek lu ñum gën a consaan mooy jigéen yi ak xale yi yàlla yàlla jég koo xamante ne dafa am jot eh, dafa am jot si jigéen yi ak xale yi mu bàyyi xel yi tamit si jigéen yi ak xale yi. mu teg ak si jigéen yi ak xale yi. ñun foog nañ ne Gambia munatul am ku mel ni El Hadj Ousseynou Numukunda Darboe. lu lu tax ma wax loolu nag mooy. Eh, dégg naa benn jigéen bu fi wóyoon. mu ne Dabo bi ka mu ne Ousseynou Dabo man ma ne ahankay moom mu ne ahankay Ousseynou te kam faa noo la Ousseynou eh, si soos loo soo gisee soo moom moom mooy moom eh, mooy atelen fankaso atelen londo fankasooti a ah, encore tatunan waye alaaji usenu moy jooji ham ham londo londi londi tio bom ham ham wobi wobi ka kamfa londi tio ni wo kamfata hana mankate dammat mulu ba noma ate wol fa wol be la mantorol woto alaaji usente kamfano alhaji Ousseyn mu mooleti mu mu mu yaalon ko nsa biije mun be siri wo yaabi mun fana be lori wo fana yaabi a ye a tara ntelu bee la biye kooma jama jama situje mu yaalon ko nsa bii fo janin be faal ñin nen alhaji Ouseynu Daabo ti mu naa tinnan be moo doo ñini la lu a ñu seet keneen ni nga Alhaji Ousainou Darboe Sow nga mooy ala speech do a years ago Alhaji a ka akate wasala Alhaji Ousainou mu ne du tawlo akate wasala fo na yaje ñi musolul be sirin teng ni kata marché to it struggle la akate wasala fonyi musolul be sirin teng idingol kata karamo to ila karamo ko la yedo ku kendo so alaji usenu kate wasala wona yaje pamane na moñolu ikado ku kendo so nyimbanko alaji alaji usenu kate wasala fona yaje nyin eh, eh sa sate mun joko nying ay sila kendo soto ay lopta kendo soto ay kurango soto ay comfortable places also alaji usenu kate sabar la fona ya je gambia dingolu ye balu ko banko dingol banko dol ka balu nyamin bari mbe mune fola mbe mune fola gambia funding keli after 25 eh, years of struggle alaji usenu mum face mu atina alaji usenu man saw eh, man wasa nin wasala alaji usenu woto gambia fondin kelal kana wasa yenta wi ali nga si ko nyim banku eh, banko kan eh, janga boni banko baro is a betrayer adam baro jampa ka ani momum be eh, ya ke nyim banko ka betray andun there is no person standing here mumma wo witness adam baro before 2016 nte bilen nata UDP bari ni UDP 20 eh 1996 jamale kaja jagala watana UDP nyuko sampa woton kam fammuta 1996 UDP del bawa lota nyamina e mullo e kawle fontelier bari ni ni wol kacata e kamum fo e adama la kuoto i fawo ka lon ko adama manke moti mu yalon ko he is trustworthy kono adama baro is not trustworthy alla carte ke solal kanadiela Dingole balibul muryalon ko a fito is more important to you than Adama Barrow. Wotombe wotombe mum fola ndugu kebe musoli. Ali dingol sike no president otile. Par sai natural ye wala life sacrifice because of Adama Barrow. Janni dingobe kele a o batara banko tinyata. Andum banko la tinyabali a wolentel londi jang. min ne a alaji usenu kate sinola ate minna ate ate domoro kela fona aje banko bota bulu kurungol kono thank you diyamula siyata mbe mum fola moolu ye ali nga kata nga na karte kesota ñu fay njukkal ñu fay ñu kal Adama eh, eh, eh, Alaaji Ousseynou Dabo Alaaji Ousseynou Gambien yi dañ ko dañ ko amel luñ ko war a fay kon nañ leen ko fay nañ leen fay naar bi xoromam. nañ leen fay naar bi nga na quartier ci ka nga quartier fayaye nga tenki tenki nga nga donga nga nga tantangol kosi nim futata state house a nim mun keta wola wolende ala baraka bake pamani a baraka bake lalala way alala boy kene la ci Gambia cene de ko yo boy Tell her to tell me. alala yala boy kelele tegame lay la la boy kelele tegame alala yala boy chole dukoyo boy Super Gala Sabla

kenn la chéri amey aye yaa seko kenn du ko yóbbooy ala yaa sekoy ibo de sabayoy kenn la chéri amey aljamdu benn tey benn aljamdu bi joxe na fa ay machine ñaw kanuma hit ah honorable Tuku Jallo gisal leen boxol gisal na suta nungi koy tamit boxol mu leen liggéeyal ay gaali nappkat ah ak tamit looba ñoomi ak ñoomi yëpp def fay tamit animal maanaam mala yi bëy xar nak fuñ le naa sampal na leen ko moom Tuku Diallo itamit indi naa ci ñoom bi li ko wër yëpp fu ñoo nampalee ay xale maanaam dundu xale jox na leen ko loolu seetlu naa ko parce que def na ko mu ne gën ah Touba Nding tamit gasal na leen boxol baa Bafulooto tamit gasal na leen boxol waaw boo demee nag boo demee ci Gambia bi boo demee ci Gambia bi yëpp léegi génn nañ North Bank rawatina sax North Bank waaye loo xam ne amoon North Bank rek. ngeen xam ne jigéen njale toog mooy ku ñuy amee lu ne nag Thiamane ah, Bojang mooy Tuku Diallo boo demee ah, Komba Lamine moom defal na leen ah, Bohol nga dem Jokal Foñi gisal na leen Bohol Coastal Road Project gisal na leen Bohol ak Daaru Busumbala gisal na leen Bohol nga xam ne kii njëriñ rek la feesal tëpp te mu ngi nii toog kon du mu kedde kenn demul baleen soo leen ñàkkee yi Tuku Diallo yéen a ko def seen bopp nit ki boo ko njëriñ moo tax UDP wiir UDP mom nekkul government wa ñu ngi liggey Tuku jalo. guddeeg besek mu ngi liggéeyal North Bank Region so demee Tambana Tambana jokadu mu len leen sampal juma bo xam mu ngi andak ay madrasa andak jigen fu ñoo Tuku jallo moko ko samp Tambana dik ñom Lamine Maas kon gàcce ngalama aja Tuku jalo. jërëjëf. Uh, thank you very much. Uh, ni yombu ngono ndin awadi usenu ni mu ngi ànd usenu bi dina dina ci sex alhamdulillah rabbil alamin ah, ah, ah, alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin gannaaw buñ sante yàlla waaw kadalo nga yàlla kendu julli si yonent bi wa sal kiram ñu ngi gërëm suñuy waajur waaw de tendro di le la wulula ñu ngi nuyu imam yi ak alkaali ñu ngi àggal si honorable alhaaji Ousseynou Noumou Tukur Dabo bantay ñu ngi nuyu parti leader alhaaji Ousseynou Dabo ñu ngi nuyu honorable chairman yi nga xam ne ñu ngi toog si booram di nuyu lot Mayores Rohim Malick Lo di nuyu suñ parliamentary member di honorable Matar Jeng. di nuyu suma bossi bopa di Mol lamine Bojang KMC kc Kerawan Area Council. Kerawan Area Council. ñu ngi nuyu gan yi fi ñëw yëpp. ñu ngi nuyu gan yi fi ñëw yëpp. di leen dalal fii si Ndungu Kebe. di gërëm nag waa dëkk bi nga xam ne ñoo suñ wax bari. ndax si wàlli ndaw ñi la ñuy waxee li tax ñuy wax si wàlli ndaw yi mooy xëj na am na luñ fekkewut waaye si history jox na ñu nguuri Jawara fi mu tàmbalee ba fi mu jeexee. fekkee suñ boppa nguuri Yaaya Jammeh fi mu ba fi mu jeexee. fekkee it nguuri Adama Barrow ñu gëm ne 58 days moo des ndax gom nen ne on the fourth of december inchallah ousseynou dama mooy dem state house ndax li go tax ñu gëm ko mooy. xëj na sax suñ ko defut ngir Ousseynou dinañ ko def ndax suñ boppa Ah, nim ndax mu ñu ñooy jël yar di ko jox nit mu ñu koy caw tañ mun koo nangu delloo ko keneen mu tëralal ñu ko ñu bàyyee ko yar bi mu ñuy caw. ah ah ko mu ñaaree ah, ba ku soota a ah, kam musa ñoo la ni jaay ndoo la la soota a ka pare ndax Adama Barrow mu Adama Barrow. moo nekk si réew mi. a gërëm ba meeting bi mu njëkk a génn gannaaw bu mu elections. ah meeting la ko njëkk a def fii. ah Ndungu Kebe nga moo wax ak ñun. Ah, ki nga xam ne moo toppa si gannaawam di ko subóoru ñu xamee ko si honorable Ba. ah ñun dafa taxaw ne falu leen ñu yéen ndax xam ne ne sànnilu leen ñu. te wax bu mu ñu waxoon moom leen gis ci réew mi ndax loolu la réew mi di doxalee ak ñun. Ah, ah, a kuma min ko yoro to banko ga mi ya to banko to tama ka wala développement yi ñu wax ne mu ngi koy def ñun gisuñ ko te dégguñ ko. l'hôpital ñi wax ne mu tabax ñun gisuñ ko dégguñ ko. ab ambulance yi ñu ko pour mu séddale ko si réew mi mu taxaw ne moo koy maye ñun gisuñ ko dégguñ ko te xam na ne dañ ko ko mu séddale ko. den sonn. den tay

soo xaajee nuuka be ñeent benn moo am yoon bu baax amuñ ko lopitaan amuñ ko school bu baax amuñ ko kon lan lañu dama laajte lan la ñu nguur jëriñ ñoom moom suñ père yi ñoo ko fa tegoon ko wàccee teg keneen comme December fourth nañ sànni suñ parti si kees UDP bu mu leen réer bu ko nete ko wàccee fal keneen mu ñun liñ gis ci nguur gi mooy. tey ki moo ma neex. kii laa liggéeyal. li am moom laa ko jox. tey. ñoo na taxaw mu Gambia khalis amna fi ba janax yu ci bir neegi di neen xamne Gambia amna khalis tay la dundu gëna ser tay la dundu gëna ser, tay la pass gëna ser tay la gëna ser tay la moto gëna ñak tay la essence gëna ser kon khalis bi fi duggoon fan la ko Adama baro def. suma last message moy. doomi Nugu Kebe. bu leen kenn jëriñoo pour boppam. jógee feneen ñëw di leen jël di leen yóbbu. Ah, ngir benn hundred dalasi bu leen ko dara jaral. Ah, gis nañ fi yenn foom démba. ñu ne NPP ñoo ko fi indi. dañoo registré doomi Nugu Kebe ñu ne pour yóbbu si Adama Barrow mu may leen dara. Ah, pues a mí nax lolu amul. Ah, ne ko man. Ku ci joxe sa photos card number. Ñu ko liggéeyee ji ngir seen poos. Ñu bàyyi waat xel. UDP moo ñu fi ñëwal pour dimbale ñu. ñu bàyyi si xel. kon wiiw tv TP jërëngeen jëf jërëngeen jëf jërëjëf Amad wax bi rafet na sant naa waa ala tontu ay ala tontu alhamdulillahi rabbil alamin ak déglu leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. ay al konton al teddugal jëy. di leen balu xàq si bi. ndax dëkk yi nañ. ah saata mool siyaata bankool saatool siyaat. may ànd ak ah mel ni ko ni yu bi ba siro leen fenn ngeen na da ngeen maa seet si. man daal di ndugu kebe. leen

Adiata Komara tàccu leen jëkkër gi waaye a ma digal di jàmbaar. bu déggoon waxi noonu. Adama Ndiaye Ndour. ñu sol ko si noppam yi. yekkubo duna tulo kon. mu dégg ko. ay wol mooy. lu ma yebal may ànd ak yéen. gërëm naa ko sant naa ko. wato a koma kontra ko. maa ngi leen a wax ne maa ngi ci seen gannaaw tey. ala ñu seenu a koma kontra ko abe koma bi. maa ngi ci seen gannaaw ëllëg. abe koma sam. suma doom yëpp a ngi ci seen gannaaw. a jiwon bebe koma ala ñu di la yëgal ne la. ka foo su ma limee ah na continuer kaa doon mistake la de. gërëm naa Aji Mbaye Aji Baye Mbaye Sarr. Eh, eh, eh, Alaaji Alaaji Alaaji Baye Mbaye Sarr. gërëm naa Alaaji Baye Mbaye Sarr. Alaaji Baye sant di gërëm. akaba tentu la. maa ngi gërëm tukku jàllo yi ñoom ñëpp su damay juum. la. di gërëm Lamine Maas. Lamine la na si dëkk bi. Lamine Maas mënuñ koo ñàkk gërëm. Lamine Maas Missa luñ def si dëkk bi ñun xam nañ ko ñun gis nañ ko te dañ ko lëggéeyal te fas nañ yéene lëggéeyal ko te alaaji seeni daabo ñu ngi lay wax na la ñow yow ba nga toog sa siis ba ñu toog bégal la incha allahu la wax na bés boo toogee si siis bi. na nga gëstu Ndungu Kebe. nga Ndungu Kebe sonn nañ. sonn nañ si ay naxe. Ndungu Kebe mënuñu am dara si nguur. képp ku mën a taxaw ne Ndungu Kebe am nañ dara si nguur dikkal wax ma ko. maa taxaw fii si digg géew bi képp xam ne nii. nana Ndungu Kebe am na dara si nguur gi na ñëw wax ma ko. Ah, boobu soo seetlu ak ko dugg ko ba Kontoro Masakunda. yéen a. dugg amuñ dara luñ mën a wane si nguur. Kontoro Masakunda. nu ko kee ba xamuñ ndox mu doy am na ñoo xam ne ba si teen jigéen gestu si ndox aliyem aliyem mu doole. na ngeen si njàng su njàng doom yi nañ si. daw nañ ba sonn. baay yi daw nañ. yaay yi daw nañ. te dara. benn buur defaluñ ñu dara. ñun door buur dootuñu yóbbu. mu toog sa siis ba incha allah. loolu lañ fas yéene. loolu alaaji Ousseynou Dia Daba yal na la yàlla tàcc bañ fekkee ko ñun ñëpp jigéenu ndugu kebe nañ de képp ku leen dimbale danañ danañ ci nuñ man ah, ñu ngi dox wax man de fépp fépp taxaw danaa ànd ak yéen te jox nañ ma cër saa yi ma leen wooyee danañ ko def te ñu ngi ci suñ gannaaw tey ñu ngi ci suñ gannaawal la di leen wax na leen jigéen amul doole jigéen tim ku daal xaalis lebal ah, ah, mu dem de sa lijjanti da xamal boppam ah, du ñee kenn boo lëgee du ñee kenn anu ah, no ñee do ko ka ñam ka moo fee jigéen ñi sonn nañ sonn ba taat Alaaji Seenu Daabo lu may ñaan Alaaji Seenu Daabo ngam daani la képp ko ànd ak Alaaji Seenu Daabo yal aye maa koy afama yal na la yàlla taw ba sa kaw alay mari mala fa sa mu ngabal la boppam aye sa si ka fa yal nañ ànd ñun ñëpp ñu sakti sis ba amiin mu toog inshallah maa ngi lay ñaanal wasalaam mënumaa wax nag mënumaa wax waaye su ma mënoon a waxee danaa poli ndax ñun ñun jigéen ñi Louga Kébé dañ sonn baraka baake aida diyamo betiyada ah, mbe namen kela silan ŋaalon be falindiro kela ñin silo ne ah, mbe diyam la deputy party leader yele and uh, deputy um, administrative secretary ah, mbe musol le be la baake ñin to kono silan musol itel diyamu ta dawoda ŋamla kena ne diyamuta jang bari ni muso e men fo ma fatale fenketa kewol taadi de bara ala kumo keseta de andu ŋamla min ba mo kono ay wala fo wodo sayi nin ke fula diyamuta dawoda muso sababe ah muso la nin baara musola ni mbar mbena men kela silan bay mbay sar mbade fanan kumandira ani moltina kaca mbay mbay sar be dawoda ay nani mole kaca mu seet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 allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jiital ci suma nuyoo suñu kilifa suñu njiit muy wetin président alhaaji Ousainou daabo di ko wàccee wàccu waayam di nuyu suñu jigéeni boppa joo xam ne waxuñ ne ñun rek ñoo ko moom waaye yàlla seede na ne ku am kër ci suñu biir xol la nga xam ne ubbil nañu bunta yu jafe woon a ubbi ci lowa ñoomi ci North Bank ci politique ci UDP muy United Democratic Party kooku mooy lot mayoress buur Banjul Rogi Malick Lo ñu ngi ko nuyu di ko wàccee wàccu di nuyu suñu beneen yaay mooy aji tukku Diallo ñun ñëpp dégg nañ li lim muy ay projet yoo xam ne def na ko ci région bi di nuyu suma goro spécial nuyu muy suma goro di suma nijaay Amadou Sané nga xam ne dafa bokk suma jabar muy suma seet bi maa ngi koy beral nuyoo ndax bàyyi na soxlaam yépp depuis demba benn tey mu ngi ànd ak man yaramam neexut ba fii nii la ko disturb mu door a wàññeeku kon dëgg dëgg soxna si maa ngi koy gërëm muy Xadijaata di nuyu regional body bi dalee ko ci suma boss alaaji seeni saabali ba ci ki gën suufee ci exécutif bi bàyyiwuma kenn di nuyu suma raka di suma doomi ndey muy Tidiane Dramé nga xam ne yaayam mooy simmi jox suma yaay benn maam moo jur suñu yaay yi ñu ngi koy gërëm di ko santa di wax waa Ndungu Kebe muy famille li Kunda muy famille Dramé Kunda maa ngi leen di dénk suma raka maa ngi leen di ñaan ngeen sigil suma raka maa leen di ñaan ngeen Eketil suma raka batam ndax yéen ko man wa ñomi juroom ben fukki dëkk ak juroom ben man maa kon vice chairman wa ñomi kera biñ ma ne sa ben mbaxana dañ ko sumi ma wacce suma tankane tanana tànn naa suma raka Tijaan drame kenn vice chairman wa ñomi wallahi bu tidian rusee man duma jik bu tidian duma jik kon ma ngeen nuyu compine bi nga xamne ñoo fi nekk jappal Lamin Mass bay, ma ngi leen di nuyu bu baax ci njitalu Aida jeng. ma ngeen nuyu compine bi nga xamne ne ñoo nekk fii jàppama ci njitalu mam Kanji ma ngi leen di nuyu bu baax ma ngi leen di gërëm yeen wa Ndungu Kebe bayi leen seen xel bu baax UDP lebal nañ leen bor xam ne fayagu leen ko seen doom Mamat Faye nguuri APRC la nekkoon kansulo nguuri APRC daanu mu ñëw join yu nguuri UDP euh, parti UDP amul ñetti weer UDP nominé def ko candidate euh, local government election fii ci Medina Ward sponsor elec campagne am sponsor nomination deposit léppam UDP ñoo ko ko defal su fekkonte ne UDP dañ doon xool démba wala ñu xàmmee gan ak tey ak ki sañ ci dëkk bi dama ne konoon Mamad Faye du nekk nominated candidate UDP ci lowa ñoomi ci United Democratic Party te bi loolu xewee UDP xooluñ loolu yépp doomi ndungu Kébé moo doon dem ci biir dëkk yi di leen wax ne ah bu ngeen ko sànni ne office ba yesa ah, yesa ah, la fa nekkee won ba mamad Faye daan kon damay wax ne ku mat sa yaram daf la jot way ku la jotu munu la mata kon matante bi ñun mbokay la nañ leen ko bayyi te dimbalante yan Ndungu Kebe li ngeen am jafena, li ngeen am yomut wallahi suma ko sumadeka, suma deka kon ma def ko suma deka waye la ko loo bañ bañ xaj war nga ko nangul ne ay bañam dafa weex kon nangul nañ leen ko waaye teel leen ko seen boppa ñun suñ leen ko nangulee duñ leen ko mun a mboo leen dëkki wolof ci réewi Gambia présidentielle élection bii passé Adama Barrow dafa daanu mboo leen dëkki pol ci réewi Gambia présidentielle élection bii passé Adama Barrow dafa daanu mboo leen dëkki Joola ci réewi Gambia Adama Baro dafa daanu ndax tax na Adama Baro daanu yéen waa Ndungu Kebe wala ma ne ñun waa Medina nañ leen bàyyi ku moom moom ñu ku war moom buñ ko moomee yàqu-yàqu am Ndungu Kebe dafa war a moom dafa war a fal warta toog di xaar ku falu moom ko li may wax Ndungu Kebe laa taxaw moo tax may tudd Ndungu Kebe waaye Ndungu Kebe moomut ko North Bank Gambia yi ñëpp ko moom. kon ñun wa na bank nañ leen bàyyi suñ xel bu baax dëkk sëriñ yi dañ bari ci suñu boor yi nguur yi dañ njëkk a nax nit ñi nat nit ñi dañ foog ku nekk kilifa waroo a kontoor buur déedéet kalifa dafa war a kontoor buur boo xam ne jaarut ci yoon ndax yàlla ko wax ci alquran muy aaya boo xam ne aaya bu wér la dafa wax ne yaa ayyuha allazina amanu laa tufsidu fil ard wattaqi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunya واحسن كما احسن الله اليك ولا تبقي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين لولو يالا كو واخدو واخي مباي سار يالا مو bàyyil xel ci li ma la cër li ma la cëral yow doomu aadama sa kër àllaaxira waaye bul fàtte cër bi ma la defal ci àdduna ndax lépp luy teraanga ci àdduna doomu aadama moo tax mu yàlla def ko fi kon daamu aadama waru cee fàtte boppam waaye fan la yàlla tëjee aadama aaya ba mu ne nag doom aadama bi bul bàyyi yàqkat ci kaw suuf ndax yàlla bëggut yàqkat ndax amati nañ yàqkat bu gën a rëy nguuri aadama baro ci réewi Gambia kon lan moo war a tax ñu war ko fee bàyyi ñun wa Gambia lan mo wara tax ñu ne UDP parti soose la lan mo wara a tax ñu wara gis né dañ wara tribalism ci réewi Gambia lan lañu amal njëriñ lan lañu amalal ci njëriñ ñaari musiba yal nañu ci yalla musal moy xex yi né ak xex xet yalla nañu ci yalla musal té nguri Adama boro pare nañ ko indi ci réewi Gambia yenna tongen ci social media ay nit no xamne ne warona jël yóbbu leen campement ñu faj leen ñu olen state house jox leen xaliss ñuy saga suñu parti leader ngir wara am ndam way fekk na du dega de bu ma la joxone ne ne baax suma ñetti baram yeb mu ngi ci suma kaw den man ma baax waaye suma ne la ya bon suma ñetti baram yeb mu ngi ci suma den ne man ma bon ndax nit ki du gis lu bopam loo seetu boo jàkkaarloog sa bopp rek ngay gis du ma suma kaddu te duma ma gërëm suma broda diaspora la nekk muy alaaji Sonko esaw la dëkk mu ngi ci jataay bi alaaji honorable party alaaji Sonko fonka nañu jàppa nañu sagal nañu maa ngi gërëm suma ceew maan loo ñoomi ngoone jaasi def na lu kenn musta def ci politique tey boo daan jàlla wala parti bu mursid jalla di wel commune bi ci terminal bi nit ñi dañoo endu fofu ben ngoon duñ am luñu lekka waaye ngone jassa ci xalaatam ci taxawayam mo jog des fon ba toga ñam yo xamne ne ku fa endu bobu len jambatu lo xif kon ngone Diatta ya ñi nga andat dëgg dëgg jërë ngeen jëf fi ma daaneele suma kaddu te li ma warana wax bari maa ngi gërëm suma doomi ndey honorable Lamine Mass parti leader honorable Lamine Mass du ma wax lim def ndax sa tur bi tudd na ko mooy kuubee jaara Lamine ja Lamine Mass fañ na jàngoro yi nekk ci région bi te bugut kenn ku wax dama ne fépp fu am ci région bi Lamine Mass loxoom dem na fa moo xam fa la ñoo lekkee wala lekkee wuñ fa Lamine Mass loxoom dem na fa te witness naa ko xam naa la mu fa def ñun waa ñun olof nag dañ dee wax ne politique dañ may defal ma sànnil la loolu du de xam ngeen yéen olof yi wax njot jam ku jotut doo jam parce que dañ ne njot jam kon ku jotut doo jam kon UDP balaa ngeen mun a jam dañ mun am nguuri Gambia am sañ-sañ ak man-man pour defal leen kon ñun suñ buggee ku defal. nañ leen laaj suñ carte yi ñiñ ko jox lan la ñu defal ak lan la ñu war a defal waaye UDP dañuy ut gataguñ ci bal bi bay jam kenn Lamine Mar Sars club club yi bari nañ waaye boobu maay président bi maa ko moomal suma boppa ku fàtte sa boppa doo fàttaliku kenn maa ngi gërëm fans club bi yëpp turu suñu PRO Maty Sène ak député maladi Gassama depuis biñu joggé ben légui ñu ngi and ak ñun printé yu bare bare bari ngir fans club bi ak suñu xalé yi nga xamné ño nekk ci diaspora bi suñu agé Tamba danañ ko motali ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal nak suñu constituency chairman aladi Karamo jame yalla dara tawuko yalla nañu fëggal bopam ba mu dellu at ci suñu biir di gërëm suma regional chairman ma Lamine Bodiang jërëjëf rëccu wuñ ñu jiitu woon nekk sa campagne manager tey duñ rus ànd ak yow ci fenn foo xam ne mus nañ faa dem ak yow di la wane di gërëm suma national assembly member Matar Dieng Matar Dieng gàcce ngalaama def na ci lowa ñoomi lu député mu def lowa ñoomi yóbbu na suma dëkk projet over one million dollars ndugu kede fii yee na fi projet Faidherbe Diop Fafanding yóbbu na fa projet moo tax ñu am ndox ak place ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye nag jëf yi dañ wuute moo tax tur yi wuute dama ne boo buggee xam suma papa Alaaji Ousseynou Daabo demal nga jàng turam mooy lan xaa un siinun noonun xaa bi mooy xosnul xolox kooku mooy ku rafet ci siin gi mooy salaam nit jàmm nuun gi mooy leer niti leer la kon kooku mooy kilifa wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu a taxawee fii wax tudduma suma bàjjani boppa aji yam seeka ngeen xam ne jege gu ma jege la waaye du ku ma fàtte bàjjen maa ngi laa nuyu maa ngi lay wàccee sa te xam ne géew bi gaynde wàll si na muusi danañ ci ron la yi ci bàyyi foos nag a ah, man day jërëjëf kon Ousseynou léegi du soose léegi naar la welcome bismillah shukran bik wallahi alaaji Ousseynou ñimɓe ɓe keke ɓara ko ni la laamini campaign ka jan nemoto cinquante nola ñimɓa ko kan fono sike thank you very much nugu keɓe tatulen wa ak jasis choc sep fa ni santi yalla li ngeen war a def mooy sànni leen carte yu muy fii ngeen am seen alal seen alal waaye loolu ne seen i pièces bi sànni ñu ko téye ngeen leen seen i pièces suñ président. akademi président kontoon na. muy alhaji Aboubacar Ousseynou Numukunda Dabo. muy alhaji Aboubacar Ousseynou Numukunda Dabo. nuyo gi nak nuyo yep ci mom la ko tek loxo mu tek ko si loxo ak executive am bi nga xamne ne kenn mënu leena UDP dafa melni suñu joge Gambia yëpp ban xeet ngeena dega bir Gambia te degu len ko si bir executive. bi ban xeet lañ dega Gambia parce que buñ ne olof yi bu bon dafa mel ni olof yëpp jóg nañ bu dudu Kasa Diatta jógee desut bu cuku Diallo bon dafa mel ni pël yëpp dafa melni ben benn xeet fi. wala si kilin te kooma. mun naa compter xeet yëpp seen biir. asa compter kilin kilin. waaye man lima ñëw pour daha fi lima daha si campagne bii. Ah, mooy nootu tribalism bu kenn mos a gomloo kenn ne tribalist dafa am Gambia. Tribalist mosta am Gambia. te li si gën daw yaram. ñi ñoo rileetal tribalist si biir Gambia fii xeet biñ ko rileetal mooy soose man Ablaye Diop ma ne loolu du dëgg man dama am proof pour wax lii man suma maam olof la dafa jógee Sénégal Mama Samba Koki Diop la tudda moom moo Lat Joor Joor Yaaba Diop ak Sayer Diop mi sanca Serekunda ñoo bokka waaye bi Mama Samba ñëwee Gambia Belending la wàcca branding mam man sa Demba Sonko moo ko dalal lim lim njëkk a def mooy def ko may jabar te jabar mi ko may doomi boppam la mooy jabu jaara Sonko may ko dëkka dëkka boobu romb ngeen ko dem mooy mbantankili bon head gu tribalist dina joxe ni royalty bir de kam ndax bu sosé yi nekkoon tribalist na dëkki olof ak yeneen xéet dinañ am gambia té li guddal wax ji sax li ko gàttal gën fañ boké ñun xéet yi gambia fi du gambia ñun dañ dëkka difi manding mboolem xeet bu nekk Gambia. mboolem xeet bu nekk Gambia. bokk nañoo soose yi dëkk Manding. te time boobu ñu ngi nekk on a Mandinka protectorate. lu tax waxu jamono boo ne soose yi dañ tribaliste. waaw bu nit jóg si intérêt boppam pour wut toogu boo xam ne war na ko ne waa réew mi eenewuñ ko ko.

ma fàttali ni ñi ne ñun waa Baara ñoo organise teeru bu rëy bi ngeen seetaan Baara te Baara mosta am opposition UDP moo tax Baara am opposition te ki jiite opposition ki jiite comité boobu in Baara mooy Kéba Bojang maa ngi ko gërëm di ko parce que bi moo jiite loolu bi moo jiite loolu naxari na trop pour nit nit loolu biir baara suñ gaynde UDP bi bi nekk biir baara mooy Aba Haydara ku ne ku nekk gis na taxawaayam Moutar Dieng su ko nit ñi di gërëm ñun ñoo gën a xam ñun mi nekk si oncle moom dafa jëriñ dis community balaa moo ut si ñun dara lim graduate fii upon a thousand people moo tax ñu ngay wax suñ honorable président ne yàlla jox nañu réew mi ba pare te su su yàlla defee loolu ba mu ñu ngay ñaan ñun waa Baara ku nekk xam na ne Baara moo nekk si boppi dëkk yëpp. Bara amuñ ambulance buy yóbbu nit yu febar yi government masuñ ko helat. nit ñi dee ci bir feeri bi bari na bari na gali baara yi gaali baara yi nañ di nit Gambia ba mu feeri amut waaye kenn ulen? len su jawaroon ñoo dañ ko doon su yaay jame doon ñëw dañ ko doon teeru teeru wuñ suñ président ñun teeru wuñ alaaji Ousseynou Dabo waaye leer na ma ne liñ soxla baara si gaal yi waaf alaaji Ousseynou Dabo moo ko fa def bon nag maa ngi indi benn comparaison rek mooy lii pati yi Gambia fanweeri pati fanweeri parti yoy ben du si UDP Dan parti mënut a fexe ba mel UDP mel UDP rek moo structure bopam da division bu nek mo am fa committee district bu nek mo am committee deka bu nek mo am fa ñetti nit goor ak jigen ñun nek fa di ñi ñi support UDP si dëkk yooyu fanweeri nit yoy la rew mi si biir fanweeri nit yoy si biir fanweeri nit yooyu. moo dem sama kon. Alaaji Ousseynou Dabo nekkut ci kenn. Alaaji Ousseynou li kenn mënut taw muus ba mel ni Alaaji Ousseynou. li tax loolu mooy. parti bu nekk. dafa am koo xam ne moo dem uti xaalisam. kenn xamul xaalis boobu lew na naan lewut. mu ñëw fam patam jiite ko. alaaji Ousseynou Dabo rek moo amee pati boo xam ne bam ko fam bañ ko fam nekku fa waaye ba ko ñu ko fam famee ba pare ñu ne nañ seet ki ko war a jiite ñoom ñu ne am nañ xam-xam bi am nañ fit bi ah, waaye liñ bugg a si ki nga xam ne dafa war a am jub dafa war a am xam-xam dafa war a doomu aadama dafa wara a xam ñu wara a Gambia dafa wara bolé boole nit ñi nekk bena ñu tànn ne kooku his excellence al Alhaji Ousainou dabo president of the Gambia December 4 thank you very much thank you thank you jaran jarankol la musolem le be ñoomile malam fo jaral tam ñomi di bang bakeme sembe wo sede le eh, bari a téléphone am be sirin banjul man say bi awale mburi banjul ti bari nala mbe na jali muso kumandira le ay na kuma jaranka musoma ndelle baasolo koɗola waaw ngeen toog rek xool ñu ak jëlel bi rek bi kuusaati <laughs> ah nay jërëjëf waxal alo alo kon asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi kenn sa tur sa sant di nuyu ma Baye Mbaye Sarr di nuyu Lamine ak Seydou Diouf ak Roqi loo muy toog naka nar ba jeewa chef ju ma rek topp si kaw ak gannaaw di ko campagne sooba ngoon muy def lu ma neex ci man ñu ne ma alal yàlla waaye xarit ba la koy def parti bi la leen yàgg a ñaanal leen yàlla defal jàmm ndax ñu baax la ku neex a ngeen maa leen dal topp da leen campagne di ànd ak Seydou Diouf ñu ma yëngal suba ba may kon bëgg wax ah gars rek neex ewa ragal na jëm nga kun yeme dañ la di so me do to ne ma dem la bal ga daanu yar la do gen dañ ne kun yeme dañ la di so me do to ne ma dem la bal ga daanu kay da kun yeme dañ la ñëwale yoo alam raqi mali mooy tàccu leen ma neex ñoo raqi mali mooy yooy sagara mooy sagali yoo borom banjulaay raqi mali mooy awaay ragal da jangay ne ku ñeme dañ laa dee yoo soo melotoonee jaboor ge jaaxle loo ñëwal wayo ana raqi malik woy yoo wayu mbay sar ana raqi malik woy yoo wayu seet juuf ana raqi malik woy yoo dafa nu la neex sa jota bi yaa ko moomu yoo raqi malik woy parti bi yaa ko moomu yoo sis bi yaa ko moom sis bi yaa ko moomu e waay ndane ku ñeme dañ la adeyo soo mene toone njaboot gi jaaxle lool ñawalo yoo lay lay la daaw tàccu leen mu neex tàccu leen mu neex may la war na maa yoo yéen a naan di jëm ngay ne ku ñu mel ne daa bee yoo soo amee la too nee ñu war nga jaaxle. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nga soo kontaanee waaw am am am yokkal si lii soo kontaanee rek soo kontaanee rek ñun tam kontaan naa. aha roxi dafa am fi ay doom waaw dafa waxoon ne ko bëgg a wax ñoom balaa balaa moo wax ñu indi di cultural group waaw ñu wéy ko dañu wax doom ñu ngi challenge aha am am waaw ah. ñu bala ngeen taw Wow, ok ah, Chairman Tidiane Dramé ñi nga xam ne dañuy réaliser ko NPP dëkk Ndungu Thiaré ñëw UDP lañ bëgg ci géew bi fii ñu ñëw fii nii Ibrahima Kamara ñëw leen fii ci biir géew bi ñu gis leen waaw nañ ñëw nañ ñëw ana ñu nañ ñëw Ibrahima Kamara ak ñi nga àndal ñëw leen waaw waaw waaw Your Excellency Ndungu Caareen mooy dëkki ñoom Amar Sarr MPP bi nga xam ne moo say regional chairman di soo called regional chairman defected from UDP waaye xam na ne fi mu jógee ak fi mu dem xam na li mu bàyyi gannaawam ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñii ay ndaw demee leen nii dem leen dem leen nii si kanam dem leen si kanam jigéen ñi ñëw leen ñëw leen nii ñëw leen. dem leen fële ngeen jàkkaarloo ngeen laaj dem leen dem leen dem leen. jërëjëf tur bi ok. ñi ñoo jógee ko Ndungu Caareen ndeysaan dem len ngeen dem ñuy ko jigéen ñi tamen nañ dem jokko loxo mu ne ngeen ñëw dawal nañ leen fii ci United Democratic Party Abdou do you have ni name okay waaw mooy mooy jigéen waaw jigéen boobu kulal ma demba sabar ya sanayande kulal la tay kulal ay raxey ayo Koko may barong ngayon. Ayo, be, be. baraka baraka baraka baraka baraka aha ah, baraka baraka baraka jari yalon mole korosiro nolde anzu billahi min seytani rajim maa ngi sant yàlla bu baax a baax di julli si yonente bu sell bi di gërëm sumay ñaari waajur di gërëm nag suma alaaja bi ñuy ko wax Lamine Mbodj di ko nuyu nag si biir Ndungu Kebe fii comme ni ñoo nuyoo buur parce nag dama delloo tontu ma ne ko suma jigéen ji jeng dafa taxaw ne mu ngi gërëm jëkkëram loolu fu ma ko dégg rek suma yaram dafa tànga kon Seydi Kane Mori maa si suuf sa kamanaat ca biir ñoomi fii nga xam ne sa doom yee fi nekk su ma doom yee fi nekk kon maa nuyu seen baay comme ni ñoo nuyoo buur ñoo mi ngi kay di leen wax ne asalaamaaleykum sant nañ yàlla ñetti yoon di njëkk a nuyu imam bi di wax suma ma lii dane bala ñoo egsi fii maa kilifa yi ñoo doon meeting fële muy kër amat kër amat buub lañ fa wax yépp dinaa ko fi tànka yépp tànka rek tànka rek du nuyu alkaali bi nga xam ne su ma parce que dañ ne alkaali Nugu Kebe ne alkaali Banjul kon maa ngi ko nuyu ni ñuy nuyoo parce que alkaali yi nag ku nekk xam na ne ñun duñ como kon maa ngi nuyu alkaali dëkk bi di ko wax ne asalaamaaleykum di nuyu nag. ciyaamaan yi nga ciyaamaan bi xam ne moo fi nekk di doomi Nugu Kebe muy député ciyaamaan di Tidiane Dramé suma càmmeñi boppa suma liggéeyandoor suma xarit di ko nuyu moom tamit comme ni ñoo nuyoo buur Dramé Kandji di nuyu seen régional ciyaamaan bi muy Sabali mi nga xam ne suma lijaayi boppa la seeni Sabali moom tamit maa ngi ko nuyu bu baax a baax a baax parce que ku nekk xam na ne séeree ne North Bank Region ni ko war a séeree di nuyu nag suma MP Mr Jeng di nuyu suma naataango suma broda boppa suma xaritu boppa muy seen chairman bi di Bojang mi nga xam ne yàqu dara ci biir North Bank waaye dama ne nuyoo dama ko bëgg a wàññi waaye du mun a nekk parce que ku liggéey ñu tudda la kon nag dama ne Mr Maas Lamine Maas maa laa nuyu bu baax a baax. di nuyu Mbaye Sarr waaye tamit nag Lamine Jojo mii taxaw si suma boor dama bëgg ngeen xool ko te xàmmee ko bu baax a baax xam ne dooleem ak njaxaam mosut a génn si United Democratic Party lu ko war ci yuut si mu ngi koo def mu toog cor ba badi bu fele nele di liggéeyal United Democratic Party liggéey bu rafet di nuyu tamit ñi ma àndal yépp dama ne ku lim juum su ma bëggee tudda ñëpp fii la ñuy fanaan waaye maa ngi nuyu suma bàjjen di aji yam sekk mi nga xam ne moo nekk député parti leader di nuyu di jël jigéen ñi ànda Ousseynou Dabo yëpp xoolal Ousseynou Dabo yëpp di jël seen nuyoo di ko jox aji yam sekk pour mu joxal ma leen ko waaye nag foog ma seppi kenn koo xam ne ñu ne ku ràcc tey sa kanam foog ma nuyu ko gannaaw bi nga xamee ne nuyu naa suma ndijaay bii nga xam ne moo toog muy Mr Sandeh yéen ñëpp xam nga ne xamoon ngeen ne moo nekkoon minister of finance ngeen gis ko mu toog fii si boori El Hadj Ousseynou Daabo ñu ko wax Amadou saane pour ñu nga xam ne xamuñ ko waaye suma ma nuyoo Amadou ba pare mbootaay bii nga xam ne fi ñu toog nii dafa am koo xam ne loolu te dama bëgg su ma ko tuddee ñëpp tàccul ma ko parce que daf ma may lu benn jigéen amu muy kéeme seen jàmme mi nga xam ne mooy suma goro. Gelam nako ko nako, naa ko parce que dama dee wax ne góor ñi ñepp bax nañ man suma jëkkër kenn génn ko <laughs> waaye nag ma ngi mujjé mujjé ngir mbaté bi bala ma egg ci suma baay di suñ parti leader dama gërëm jigéne nugu Kebe ak ndawi nugu Kebe yéen desu leen gënaaw si affaire United Democratic Party xamna ci dara parce que waxtaan naa yéen du benn yoon du ñaari yoon kon jigéenu Nugu Kebe ak ndawi Nugu Kebe xam leen seen soxla yi wax dëgg yàlla United Democratic Party su toogee faj na ko ba pare kon nag seen soxla yi faju na parce que ñun on the 4 of December Ousainu Darboe dafa falu nekk président du Gambie man kay maa leen ko parce que cin su la nooyee neex dafay xeeñ te suñu United Democratic Party xeeñ na ba pare kon on the 4th of December Alaaji Ousainou Darboe day falu su ko defee ñu del si waat fii si Nungu Kebe ñëw na ñëwut man i Malick Lowe dinaa ñëw te su ma fi egsee rek su suma biir mbokki faana faana yi dafa mel ni Alaaji Ousainou Darboe fi nekk su ko defee ñu def celebration bii fii maa ngi sant di gërëm di la wax ne alaaji Ousseynou Daabo sandungu kebee ngi nii fii dama fi xam dara su ma mbokki faana faana yéen laa bëgg a waxal ñëwoon naa fi waxtaan ak yéen dama bëgg a tey ngeen déglu ma ak xel te bañ ma dégloo xol ah ñu ne faana faana bëggu dara ñu ne faana faana bëggu dara parce que suñ ne faana faana du contre nguur mooy faana faana bëggu dara kon dama ne at bii faana faana dina kontaan nguur parce que faana faana bëgg na dara faana faana yi la seen doom yi jóg màgga raam dox dugg ci politique pare faj soxla faana faana yi kon nag dama ne wax bu ñaaw boobu faana faana du kontaan nguur dinañ ko génne ba set wecc te génna parce que sabax na njëkkee ñoo ñu génne nañ ko ba pare kon man gondaane Nugu Kebe fii fii lay jeexee waa Nugu Kebe rus naa taxaw fii di leen wax waxi politique. parce que su ma naw la jigéen ñee fi nekk ak ndaw ñi te ba maa taxaw la xam ne moom laa doon jaay nit mooy women and youth empowerment te dama de wax ne roxi Malick loo sooy politique jarut fenn jarut diggee jarut waxut wax loo parce que liñ ma fi defal fii United Democratic Party jox ma seen banda ma ànda waa Banjul ànda jigéeni Gambie yëpp ak ndaw Gambie yëpp ñu def ma mais yow bi njëkk a nekk jigéen si biir Gambia bu ma loolu doyul dara du ma doyati kon nag su ma leen ne di ngeen réer gom leen ma suma ma mbokki faana faana yi man dama am cër pour taxaw nungu kebe fii pour wax te laaj leen ma lu tax ma wax leen ko dama ne fii su ma bàyyi alaaji Malick Lo mu fi toog te kooku boo leen gisee toomaayam fu mu nekk mu ngi am si 60 years ana Malick mbaa mu ngi ci biir fii xam nga kon dafa mel ni man waxi Malick Lo bu set boo leen jógee di ngeen ma gis parce que alaaji Malick Lo ngi toog fii saa yu ma ñëwee fii mu ñëw to fekk si ba fi ma nekka ni cofeel ak mbugeel bi ma bugga alkaali bi di same thing bi di same thing Dramé Kandji loolu kenn mënu koo génnee ma ne dama ne Omar Jawara mu ngi nii fii ku dox tuuti rek egg fa Kër Omar Jawara moo jur Pa Amat Jawara Pa Amat Jawara jur ku jox wax Moodu Jawara Moodu Jawara jur Roxi Jawara Roxi Jawara moomu man lañ ko tuddee kon Kër Omar Jawara foofu dama fa am cër te ñoom xam nañ ko Patiliida moo tax alkaali bi dafa jógee. Ker Omar Jawara yow fekk si ma fi pour won mané mo ñu na anda be geej ga fer kenn mu ci dara parce que olof ñay ne lu yagga degal dama ne lu yagga degal nak, ñu ne politique nak am ker yu bari yu muy tass waye man rohi malik lo suma ker politique mënu koo tas waa Kebe United Democratic Party dafa am lu mu len di jaay te mo bëgg ngeen jëndako sax. waxal ngeen ko seen bopp fii problème yi ngeen am yépp mu si five point agenda bi nga xam ne moom la United Democratic Party di wóor di jaay waaye man dama ne six point agenda parce que the sixth one mooy seen carte yi nga xam ne moom la ñoo ñaan te bëgg ngeen jox ñu ko pour ñu mun leen a fajal the five point agenda kon dama ne waa Ndugu Kebe ñun dañ am suñ leader boo gisee may bamtuwaat loolu kilifa yi nungu kebe ñu maa dégg ñoom xam nañ parce que ñoom waxtaan nañ benn yoon ñaari yoon ca biir néeg dama ne waa nungu kebe ànd nañoo suñ boor mu nii mu ngi nii toog dendo yakan jigéenam bi di suñ bàjjeen muy aji yam sekk waa nungu kebe alaaji Ousseynou Daabo mooy suñ parti leader mom lañ ngem ba moom lañ andal te ma ngi len di wax ne am na yakar ci mom te li tax ñu am yakar ci mom foog na ne dama ko bamtu bamtuwaat rek waye nungu Kebe yena mako gëna xam parce que yena ma dégg olof te olof ñay dafa ne lu yagg dëgg la te ki dañ and ak mom 25 years ago Ousseynou Dabo man bokuma si taxaw nan Ousseynou Dabo ku bax la Ousseynou Dabo ku bax la. Ousseynou Dabo si famille bu baax la jóge Ousseynou Dabo dafa jàng man bokkuma ci ñooñu Ousseynou Dabo dafay jox nit ñi service free déedéet Ousseynou Dabo lim leen mun a defal man Roxi Malick loolu lool laa leen di jaay waaye rafetaayu Ousseynou moo jóge ci famille bu baax te dooboo Ousseynou fi gën a jànga loolu ñun dañ ko dégga ba na kon loolu kenn du ko jënd ñi nga xam ne seen karta yi lañ amee. waaye dama di five point agenda bi nga xam ne moom la United Democratic Party amee dama leen ko tuddal rek moom bu ñëwee mu tojal leen yax bi parce que fu mu nekk nii naaj bi tàng na te su yàggee moom si suma boppa suma papa dina ma mere parce que moom bu gisee jigéen ñi tuuti ñuy bëgg a ñaxa rek mu mer kon li may wax mooy dégg jàngeen United Democratic Party mu ne point agenda one dafa women and youth kon xam nga kooku wax na affaire yu jigéen ñi ak affaire yu ndaw ñi nañ ko defee nag bu ma ko fi buggee taxaw dafa mel ni waxam lay jël moom bu ñëwee dina leen ko waxal ñu ne wàllum mbéy mi agriculture agriculture tamit liggéey nañ si te li gën a important li ma leen a wax mooy five point agenda yii nekkut ne dañ toog benn fan liggéey ko de ñaari at la jël United Democratic Party pour mu liggéey ko te soo gisee mu jël ñaari at at pour liggéey ko daf si bugg a boole ku nekk su dee affaire yi mi la ñoo wax ñu ut béykat indi mu toog ñu ut ñuy def poultry indi ñu toog ñu ut ñeneen a ñeneen ñeneen ku nekk ñu indi la nga toog su ko defee ñu jël idée si boole ko loolu moo indi five point agenda si di leen wax ne wax nañ affaire éducation wax nañ affaire health wax nañ affaire technologie kon moom ñi nga xam ne noonu lañ koy defee mun naa taxaw wax leen ko de waaye dafa mel ni maa ngi jël moom li nga xam ne moom la moom waaye nag am na lu tuuti loo xam ne bëgg naa cee wax ñu ne United Democratic Party ñi ko wax lay tontu hey soo déggee bul tontu bul tontu eggu leen ci maraaj bi te fu mu nekk nag sixty days to election maraaj mi lañ egg fu mu nekk dañu puus foog ñu dellu gannaaw ñuy wax ne United Democratic Party Patty Socé la ñuy wax ne Patty Socé la dama bugg a ngeen laajal ma United Democratic Party oo ngeen laajal ma ñu fay wax ñu koy wax ne su nekkee Patty Socé lu tax ñu jël président kon day ñun olof yi ñun jekku nañ leen moo tax saa yu nekk wax ko suma jëkkër ne ko ñu ne Patty Socé la waaye ñun liñ ci am yéen amu leen ko ci parce que xam nga lan lañ ci am nag ba dañ rey dañ rey nag bi li ci gën a duuf ñun olofi kon ñu jël ko hey bàyyi leen wax bu yàqu googu waay bu fekkee ne dañ bëgg a yàq wax gi rek kon nañ yàq wax gi ñu ne tamit dinañ taxaw ne leen nag ba bañ ko reyee la ca ëpp ñoo ko jël parce que kuy président ni parti bi ñu ne aji yaa mu ndaw yaabo lan la ñu ne olof ñu ne kan mooy second ne ajaratu rooxi Malick Lo Seydi Kan yaa ngi gis lii président laa leen wax de parce que président nag palaasam moo gën a foor place yi secteur général alaaji yow ah, may daal di may ma tuuti ma won ko nii rendul ma tuuti rek ñaar ñuy toog muy député parti liida bi ak parti liida bi mun naa leen a wax ne ñun suñ place suñ ci parti bi man ak aji yaamu ndaw yaabo moo gën a foor seen parti yi kon dama ne olof bi nag moo jël yëpp ndax soose baa ko jël nañ leen ñu bàyyi wax bu yàqu United Democratic Party aji yam sekk mii toog nii mooy di député parti liida xanaa kon bi ko koy jox dafa fekk soose yëpp di nelaw waay waay waay nañ la ñu waxu yàqu waay te dama ne su fekkee ne place yi xam ne moom la joxe ñun si biir United Party dañ ko dee vote de Ousseynou Dabo jëlul kenn ne yaa a saf yaa ma ne roxi Malick yaay suma doom am président bi mu kala àdduna du dund ñu dañuy dem congrès tànn suñ place yi kon ñun bañoo jël place yi xanaa boobu dafa fekk soose yi ab boobu ana si secondaire ak Touré Kounda yi Dramé Kounda ana Koma yee kon yéen a ngi doon kon dama ne United Democratic Party parti Joola la parti soose la parti olof la waaye nag ñi ci ëppale dama ne ñi ci ëppale mooy faana faana yi ci ëppale parce que seen doom daf ci am kàddu daf fa am place kon maa leen di ñaan waa North Bank sakama nag. waa Nugu Kebe génn si leen in your numbers ngeen sànni United Democratic Party karta parce nag sànni ngeen United Democratic Party day dem de sànniwu leen dañuy dem kon United Democratic day win kon génn leen ngeen sànni seen karta yi te wax ne jërëjëf jëf asalaamaaleykum wa wa duulunga wonke ɓaɗi ɗum gooti de ah, ndemo kombon koleti so ah, ma kombonka ndesan lamin ɗiɓal ma nemanen kafara kela e naaɓe jam mbi yaɓe lola birijo to aya alaji ouseinu receive lamin jojo gasama alaji ouseinu bina baɗi bu alaji sabari Alhaji Ousseynou Bina Badilou left by 6 p.m. moo be ala mu ne Badibou ti ñoo seya kate fa yole bina kange saba man jam musolem ah, rahmatullahi sabali maaje mbe dunna Badibou le bi Mamadou mbeduna badibule almame jeyde mbeduna nale kuno bi mbalo nale awol badibu eh, malon fo mori mansa bijane bam bolong alaji bolong ya fa eh, bi bi dal balo na munem badibu di <laughs> anyway mbina min kala silang dojinak ni jaw def moy Euh, nimfuɗoto balibu bi député parti leader aɓe diyamula jeele aye balibu lonne aye karandiro ke jeele min babulu bi aɓa yitandila balibule bi ɓuura sépare mori ah? man sefele ok anyway mbe layɓe kumandila layɓe sonko ne ala groupe o a ni bijan sinpineke nse fanan so miniti fu kalamalem nin layɓe ɓe janganala mol e sina e fenndin fo janin patiliɗe ɓe diyamula i e fele ɓe yole kay bita kan kilin kilin <laughs> ah, nga laddo kuwolon ne ah, eh, balibunkol ko no probléme Okay, mbe bende bi. Rama tula changes. mo Wala nga wandi fa de ngamira. Afana mbe spala silo kam do futa ni Ani hina marom. Ani hina. Kabirin kuru do. Fo pakali ba salodo. Eh, eh. To yabe fo la Thank you very much, Brother. assalamu aleykum dungu keɓenkol ɓe ɓaade ko ɓe kontonna ñindenkilo nga kere kere mole e ɓari mooɓe e ɓaarinkele mo biko sa taɗen tari ɓe sija wole keta jumata wole keta drame kanjiti ane drame ta denkilo mbole lala wole mo fenketa to wala denkilo ɓe laa rohimaari lole ɓaarinke mo moɓele barinke mo ñomin kolbe barinke ni yaje mbeɓe dewula jang ñim dindi wo walen telimaɓe ndi jan lafta ɗen kilol ala woɗorne Didn't usenu kondom bake ida fonta la nyanguru ko e le kine lam ika fanyi le kine lam ala baraka ala baraka ala baraka ala baraka lun dan kolon sinalu yo um abaraka ah, abaraka abaraka jali muso jali afo ah, liro su jala tongola ngalon by the time be futa sanjani kanikunda ah sanjal kali kunda dingo bijana oli diba wada oli diba wada mamfi ah butung nimfura sanjal amna bu ñage sanjal nse kobe di la wolu ibaka la ñame sakanya Party leader and the Secretary General of United Democratic Party, Lawyer Hussein Numukunda Dabo, welcome to the podium. Welcome to the podium, Your Excellency. Tatulan Albulo, Albulo, Albulo, Albulo Gandolo Kiko, bi mooy yaakaar yu ñoom ñi yàlla moo ñu ko fi bàyyi. yoo xam nga ko caaxaane ak dégloo ak dégloo. ah bu uh, ma ko translate Aliou loolu la bëgg a xamal la ko Aliou ko yaa ñu ngi translate bi yoo jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf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 suma mbokk yi. ay naa naa baal ma leen kàccee. ñi nga xam ne maa moom ma bokk parti. ani melu den de parti yoo la. ak ñenn ñi nga xam ne sax bokkuñu parti. ani xanaa ni melu faa man den parti yoo la. sant yàlla lool ci loolu. ala yu seen tentu wala. di nuyu nag suma chairman bi. aba chairman oo kontoon naa. may le suma doom. adima. Tijan Dramé. Tijan Dramé. maa ngi laa nuyu. ala la gërëm itam. kéetal bi ngay ne. depuis bi nga jëlee place bi. bi leen ñu place ota. UDP dafay dem ci kanam rek. UDP dafa ñaato trop. kontaan na lool. alaayu sëriñ Ba kontaan na lool. am ne Karamo Jammeh. Karamo Jammeh. fi mu tëdd noonu. Ah, ah, xam na ne. ah na koo xam ne. Eh, moo su doon ko. xam a otu. ah abal taamu la de. ñu ngi la cee gërëm. di fii. Regional ak député régional chairman. député régional chairman. Mambay Sarr. Mambay Sarr. di nuyu itam. Lamine Lamine Mas. Amadou Lamine Mas. Lamine Jojo Kasama. Lamine Jojo Kasama. ñoom di leen nuyu. Québec Centre. maa ngi nuyu nag kii eh, Aïda Dieng. Aïda Dieng. Maam Kande Ndiaye. Maam Kande Ndiaye. Fatou Touré Ndiaye. Fatou Touré Ndiaye. Fatoumata Kebe. Madick Kébé. ak Ibrahima Kamara. ak Ibrahima Kamara. ak Amad Sarr Mundaw. ak Amad Sarr Mundaw. ñi nga ñoo joge Ndungu Caare. ñoom ñoo jógee Ndungu Caare. ñu fekk ñu fii. ñëw fekk si ci ñun. bokk ñun. ci yóbbul pour yóbbu réew mi ci kanam. leen welcome to United Democratic Party. ñu ngi parti bi. ñu ngi leen di dalal ci parti bi. ak ay duni boo xam ne amuñ oto pour jox nit. parti yoo boo xam ne amuñ xaalis pour jox nit. parti yoo xam ne Amadou Suda boo xam ne taranga rek a fi nekk. parti yoo xam ne ko taranga rek jee. ak a dalal ci parti bi. Eh, Amar Sarr bu ndaw. Amar ñu ngi laa sas bee sas la ah, yow yaa Ibrahima Kamara ne li nga xam ne loolu moo des ci biir Ndungu Caare ngeen bokk ak Tijaan amin tijaane kafu ñoo ngeen watat leen Islam United Democratic Party ne mun ngeen ko alsaanole suma ne mun leen ko mun duma ko saas man wuye sonko wuye sonko wuye soli sonko kontono kok mo xam ne mais ci time yi Souleymane Naar Sonko bi sato Souleymane Naar la waa ñun ñoo ci United Democratic Party naateleɓe UDP lu la daj ci Democratic Party te mustadeelu ci daf cee alalam daf cee def alala xam-xamam daf dee ci def eh, énergie am ñu ngi laa sant bu baax di nga taxawee UDP di nuyu aji yam seka deputy secretary general party leader di lord mayor alkali banjul moom itam nuyu maa nuyu Oli Wada ak members of the national executive yëpp ñu ànd ak man honorable Matar Jeng moom itam man ko na ma def naar tey jëm na koo def parce que bi wax ne naar bi nañ ko fee xoromam soo mu ne comme nga dañoo fee naar xoromam bon bon bon Ousainou tey xorom la te te te te naar la waaye nag naar bu sant Darboe nag musuma ko dégg ina man ko nuyu di nuyu Mr Bojang MI Bojang nga xam ne mooy suñ regional mooy suñ chairman Kerwan Area Council billahi liñ gis demba barka demba kay liñ gis baara loolu wane na liggéeyi Mr. Mr. Bodian ak other officers ñu ngi leen di gërëm man gis naa ne wëcceeku am na ci North Bank wëcceeku North Bank loolu yaa ngi ko xamee ci Baara waa Baara li ngéene barka démb altene li ngéene mus ñoo mus ñoo def loolu bi UDP commencé depuis 1996 na nga leen di gërëm si seen organisation bi te xam naa fi jógee comme nga euh, Mr Diba dafa throw out challenge di ne di ne waa bu muy wax ne ma waa baat bu ñooy gën a seen vote mooy bu opa bu ñoomi bi ak jokaadu challenge boobu am na ne jokaadu opa ñoomi lopa lowa ñoomi dinañ fenal Ibrahima Dibba won ko ne kat tunda bi ñoo voté United Democratic Party bat bu yëpp boo ko jëlee karawaan be paloodi duñ am vote si foofu in percentage sax am na loolu Ah, a wax di ngeen jaajëf gis ngeen ñu fii ñun say gan lañu yéen ñun suñ seen gan lañ. ah yaa ngi leen ah, ñu ñëw fii tey. yaa xam ngeen ne. yàlla ci jamono politik lay nekk. parti si bépp. parti a nga indi indépendance yi ñoom yëpp ñoom yëpp ñu ngi wóor kenn ku nekk di jéem a population bi di jéem a population bi liñ leen bugg defal ak liñ leen mën defal UDP nak. li ko ah, li ko eh, Ibrahim Malik Lo waxee ñun buga pour defar réew mi den ci taana lu bari la nag waaye den ci taana juróom boo xam ne day ne lool boo fekkee jublu nga ci ko war a ni ko war a defee bon mooy gën am njëriñ pour réew mi daan nga jël fukki fukki daan jël fukki agenda fukki agenda boo xam ne doo ci mun a def dara ci fukki agenda yooyu ñun nag jigéen ak ndaw seen af seen affaire soxla nañu lool xam naa ne dëkk am na ay xale ju dem Bakuwe xam naa ne dekabi dek dëkk xale seen doom yi nga xam ne dañ dem Bakuwe am na ñu ci faatu kenn xamul ndax ci biir géej bi lañ dee ndax ci biir désert bi lañ dee waaye nag lu ko war xale yooyu dañ am jom dañ dañ gis ne seen waajur yi ci lim nekk ci li nekk feesul seen boot ñu xool fii si biir réew mi ñu gis ne mënuñoo def dara fi ite fen fen kenn la loo xam ne dina mën a toppatoo seen kilifa yi looloo war nag ñu génn réew mi dem badi the back way yàlla moomu leen foofu waa UDP li dañoo arrêté loolu den ko stop buguñ benn xalel génn si Gambia dem ne da ngaa ut si mun mun ngaa dem ut si mun ngaa dem ut su fekkee compagnie ñu ñu tànn la am nga xam-xam am nga mun-mun bi nga jël visa nga dem si biti réewum dem liggéey foofu waaye du nekk backway loolu nag naka lañ ko defee youth empowerment scheme muy ci jigéen muy ci góor den ko den ko den ko sampa fii oo dinañ ko introduce fii dinañ sampa ten skill centers. ye ye ci mi réew mi. skill centers yooyu. xale yi. dinañ leen jàngal métier. xale yi jigéen yi. en fait mun naa sax am xale góor jàngal leen ñu nekk ñu ñu nekk ñawkat. dinañ dinañ jàngal xale ñuy def pastries. na dina jàngal xale yi pour ñu nekk auto mécanique pour ñu nekk carpenter te auto mécanique nag ak ak carpentry sax nekku ne góor yi rek ñoo mun a nekk carpenter oo jigéen oo góor yi nag ñoo mun a nekk mécanique am na ay jigéen yoo xam ne mécanique lañu te loolu bugg nañ bugg nañ yeneen jigéen yi ñu mun a nekk mécanique ne yéen da ñu jël réew mi ñu ngi amee auto auto eh, workshop. kootu boo xam ne gi moo ko moomoon gooma jaay nañ ko waaye su fekkee sa jaay nañ ko dinañ def arrangement ak ki ko jënd ndax ndax xale yi ñu mun a faa def seen ñu mun a seen industrial training ñu mun a nekk eh, expert mécanique ku jaayal sa ku jaayal bi xam naa ne xëy na da nga bugg a dem nga def liggéeyal sa bopp ah. government bi ñun suñu government dañ laa dañ laa jox lu ñoo wax seed money jiwu xaalis boo xam ne loolu nga mun a use nga mun a jënd say bagage boo xam ne di nga mun a def sa liggéey su fekkee kapenta nga nga mun a jënd sa bagage yi su fekkee mécanique nga nga mun a jënd sa bagage yi te xaate xaalis bi ñu du am rate interest rate bi dafa nekk dafa nekk virtually zero percent dafa nekk loo xam ne du la géteen waaye doo mun a dimbale doo mun dimbale eh, young men yi ak young young persons yi doo leen mun a dimbale pour ñu set up business nga jox leen loan muy attract 25 percent bi di génn si biir banque yokka su fekkee téeméer nga jël bon nga amee ba banque bi boor hundred and twenty five dalasi loolu loolu loolu bëgguñ ko amalla pare loolu tamee ano ko ni aji ala ala interest bi ta twenty five percent tani jebe ko no fondo kula bakla dinañ leen samp dinañ leen eh, dinañ leen defaral youth youth entrepreneurship fund boo xam ne boo xam ne xale yi ndaw yi xale yi nekk mi ñi nga dem nañ school the grade nine mun ñoo passé sen grade nine dem grade ten dinañ sen jàng ba grade nine du nekk jàngi ne nañ muna dem ñu ñu ñu jàng métier te dégg na Aïda di di ne ne jigéen la ñoo jigéen amuñ doole amuñ tracteur ci suñ five point agenda béy buntim béy loolu ges nañ ko bu baax te loolu ano fana liñ ci fasee def bokk na ci pour jigéen ñi nga képp koo xam ne béykat nga nga am jumtuwaay yoo xam ne dina la dimbale ci sa te dina nekk ne doo béy rek pour dundal sa bopp waaye dangay waaye dangay béy am loo xam ne danga ko jaay mooy commercial farming oh, ñu looy wax agribusiness loolu loolu loolu loolu loolu taxawaay la boo xam ne UDP par na ko euh, introduce ci réew mi ah, te gis na ne itam ah, béykat yi ñoom itam dañ war a am capital parce que soo buggee tracteur soo bu ko pour jëndal tracteur ki jox tracteur bi loolu kooku du la lebal foog nga am foo xam ne da nga war a jël xaalis foog nga ne dina la war a lebal xaalis te bare nañu iswaat fii agricultural development bank boo xam ne dafa nekk banque bu pour béykat yi te béykat béykat yi fa jëlee suñ fa jëlee la charge li ñoo charge commercial rates dafay nekk euh, interest rate bi nga is concessional rate parce que naa ji um, uh, béykat yi ñoom fu ñoo dugal seen xaalis ak kii jënd piis o kii jënd maalo nekkuñ benn te encourage horticulture horticulture wala ngeen garden travel am ah, nañ ci ay xam-xam na na soto London, londi tiol bulu ne not bank Surti ñoomi si garden fii garden pour def garden fii loolu loolu loolu dafa yóbbu réew ci kanam so pare nañ pour def zoning pour ne North Bank lu ko dooree lu ko dooree SAO be encourage agriculture horticulture jigéen am gardens gardens yoo xam ne dinañ leen fa sampal uh, cold stores ndax ndax seen jaxato yi sen kanja yi seen kaan yi seen légumes yi boo leen boo leen boo leen harvesté ko denca du duñ yaaxu lii la lii li tuuti lañu amee ci mbiri ci mbiri béykat ci ci biir béy waaye nag li ko roxi Malick loo waxee ñu mus ñu xalaat loolu mooy ah, agenda number six agenda number six nag mooy mun a tax ñu mun a def li mu implement five point agenda bi mooy carte bi yéen ñu meñu seen carte ah, suñ toogee li ñu wàcc five point agenda bi ñu mun a ko implement waaye suñ amul kàrta itam ah duñ ko mun a liggéey de te xam naa ne ñeneen yi mun nañ koo jël waaye na comme nga nekkul seen xalaat bon duñ ko mun a doxal parce loo xam ne yaa ko xalaat xalaati loolu boo ko buggee jël nga implement ko loolu du mun a dox tool bon li nga xam ne mooy njëriñu Gambia mooy ngeen jox UDP carte ndax five point agenda bi ñu mun a koo daxal waa Ndungu leen di gërëm seen teeru bi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di dalale fii xam naa 2022 ci président eh, eh, président eh, Pto. door nañ ko ñu na compté li Aida wax na ne Aida Dieng wax na ne kenn du fi mun a lim o kenn du fi mun a kenn ko mun a woon motax konti la jang kenn ko fi won motax ni gambia fi waye nak UDP toge ba jeng ay da jeng ak si bir ndung kebe ndonin ndonin wax ne loya dabo li ak li ak li la fi def di gërëm wa salam mani wol kom na na fala ñamin romme kebe la nungu bar sain teng am felem futa de ka futa amin bantan ni aɓe eh, joga ɗulo ko noon soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp su Pasanix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekkat ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bind si suñ app bii di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix. Minedam em vai pemu corona coronavirusas. Kon gen le men dem džiu pemu corona coronavirusas.